asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu yéen mbokk seetaan seen télévision Bichri TV di jumtukaay goo xamante ni jumtukaayu Serigne Touba la taxawaay bi nga xamante ni mu ngi ko amal ci màggaluk Touba édition 2017 seen télévision tey dafa ñëw fas yéene waxtaan ak yéen ci jëmm ju sell jëmm ju tedd jëm ji njëkk a wuutu ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba muy Cheikh Moustapha El Karim waxtaan woowu nag ñu fas ko yéene ànd ak koo xamante ni spécialité am mooy Daarul Khoudoss en général waaye Serigne Mouhamadou Moustapha en particulier muy Serigne Ahmadou Ndiaye Nguerane ñu fas yéene seq ak moom nag ñetti poñ yoo xamante ni moom lañu ñu indi ci ki njëkk a wuutu ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba benn bi mooy indi gi mu indi Serigne Touba Touba muy loo xamante ni way juram di sëriñam moo ko ko digaloon ñaareelu pañ bi di raay bi nga xamante ni moo ko jëlee njaareem ba indi ko Touba ngir tabax jumaay Touba ji te loolu di loo xamante ni bi waru ko woon ndax le président de la République française par décret dégagé woon na Euh, vingt deux millions neuf cent soixante quinze mille yu war a jëlee bi njaareem ba indi ko euh, Touba ñetteelu poñ bi mooy tabax gu mag gi nga xamante ni lu nekk Cheikh Mahamadul Moustapha daj na ko ci muy jumaa yi Touba ñetti poñ yooyu la fas yéene waxtaanee ak euh, Serigne Ahmadou Ndiaye Nguerane kon Serigne Ahmadou dama lay bàyyi nga nuyoo ak mbokk yu ni seetaan ñu tabbi ci waxtaan wi. aouzu billahi min acheytaan arrajim bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala nabiil karim sayidina wa maulana muhammadin il makin wa ala alihi wa ashaabi wa xadimihi chawi ridwani wa tamkin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf sëriñ Ahmadou Ndiaye kon dañuy tàbbi ci waxtaan wi seriñ Mouhamadou Moustapha moo njëkk a wutu sëriñ Touba waaye mel na ni tubaab yi nga xamante ni bii bi sëriñ bi duggee ci seeni loxo ci Zaïre en 1895 ba ni mu tànnee dëkkaale ji ak boromam le 19 juillet 1927 yenn juróom-benn weer la fi sëriñ Touba am yoo xamante ni nekk na ko ak ak njabootam ci Daarul Manaan gi nekk diggante Touba ak Njaareem euh, Touba ak mbake su julli jotee borom daaru muuti mooy liqaam sëriñ bi jiite waaye lu dul loolu rek e, ci loxoy nasaraan bi la ko nekk ndax xam ngeen ni daarul manaan ba nga fa génnewaat le 13 juin 1903 ngir dem ci tukki gànnaar bi am na tubaab bu bindoon muy commandant am njaareem doon def ay seede ki sëriñ bi gannaaw bi mu defee njaareem ñaari at moom tubaab boobu waxoon na ni Serigne Touba bu fi jógee kenn mënu koo wuutu yoonu murit fi lay yem wala mu tasaaroo def ay zawiya yu bare mbari waxam jooju mu waxoon nag bi Serigne bi ñibbu see Touba bi ko sëriñ Moussa Ka di euh, Martial wax na ca wax joo xamante ni bii boo ko déggee da nga jàpp ni yoonu murit dootul mën a wéy ndax Serigne Moussa dafa waxoon ni ma ñëw fi jooy jooy wolof réew ma defar euh, mbër ma defar réewi wolof ba koo fa seeru am yëf te wootewul fetali sox mu ni nag moo naka mbir yéen ñi di mbër ku mel ni man moo lu ca war gumba gu ndaw gu mët la fer ndey jëni mes lu ngeen ca xam te amagul ku ko wommat te xamagul yoon wu jubit te munta daw ba raw lorit te xel ma dof nopp yee tëx xel may xalam di férféri rangooñ ya yul di cër-cëri cër ya ca des di bër bërbëri di jéem a jëf te ruuga lax saa bu xëyee dëkk mu di jooy mbaamu mu yërëmtalu ba yooy soo ko gisee gët yi di xuuy mbaa muy palamtu lu mu sex kon sëriñ mu Ka dafa jël jëmmam def ko muy yoonu murit bi mu jël jëmmam jooju itam def ko muy koo xamante ni dafa juddu tàmbalee nàmp way juróom jigéen làqu mu feebar munta wax tëx euh, euh, euh, munta dégg tëx lu gumba ba noppi boole ca feebarub xel defe naa ni perantal boobu ku ñu la ni dana dund doo ko mën a gëm te loolu moo doon yoonu murit wi waaye au mois de juillet 1945 bi fi Cheikh Moustapha bàyyi ko fekki waajuram ba xale boobee taxoon lu gumba def na ko toppatoo ko wéral tawat yooyu sëñ Moussa Ka doon wax ba mu doon mbër moo xamante ni làmb ju mu dugg dana euh, daan bër yëpp kon sëñ Ahmadou dañoo bëgg ñëw ak yow rek si ndigal yi nga xamante ni bii sëriñ bi digaloon na ko Cheikh Moustapha te bokkoon na ci ni su boobaa euh, Touba la kon bisimilah sëñ Ahmadou. bismillahi rahmaani rahim. barakat Cheikhil Khadim. jërëjëf sëriñ bay ñu mel ni fi ñu ubbee kàddu gi foo am solo la muy wane ay taxawaay. wane itam yitte ju kawe wane itam pas-pas bu ànd ak aw fit ànd ak itam jom muy taxawaay yu am solo yoo xamante ne nii jëmm ji taxawe na ko muy Cheikh Mouhamadul Moustapha nga xam ne yàlla dogal na njaboot gi fi sëriñ bi bàyyi moo ci mag yàlla dogal itam mu jëkk koo wuutu gannaawam yàlla dogal itam mat gi nekk ci tur wi moo ëmb jikko ji noonu la jëmm ji indaale jamono loolu lépp di tawféexi suñ borom rekk waaye dugg ci ñaan gu nangu Cheikhul Xadim muy cër bu ko suñ borom sédd ci wuute gu mu wuute ak ñoñ jamono ndax damay wax ni ku mel ni sëñ Tuubaa histoire mosu koo jàngale te it jàpp niñ ci li ñëw ci li des ci jamono ku mel ni sëñ Tuubaa dana ci ñëw sëriñ Tuubaa moom yi nag xam nañ ni ci loxoy ay noonam la nekk diggante bu yàgg lool muy diggante 1895 ba 1927 diggante yooyu yëpp sëriñ bi ci ay loxo la ne muy loxo yoo xamante ne ni seen pas-pas ak seen itte bokkul ak jëmuwaayu sëñ bi waaye sëriñ bi itam yàgg waajal boppam ci wóor ko ni li mu bëgg te ñaan ko suñ boroom ñaan nga nangu na waaye lay matérialiser ñaan ga mooy yar ak njabootam teg leen ci aw yoon ba bu ëllëgee ki si biir loolee mu ñaanoon suñu borom ñoom danañ ko mën a réaliser loolu moo tax taawam bi di Cheikh Mouhamadul Moustapha taxaw taxawaay yu mat sëkk ci ay ndénkaan yoo xamante ne ni sëriñ bi moo ko dénkoon gannaawam ndax dañuy wax ni sëriñ tubaa fu mu mës dëkk ci àdduna dëkk tubaa ko gënal fu mu mës a yandu itam yandu tubaa ko gënal waaye mu bokkoon ci ay natoom ginnaaw juróom-ñaari at yim fi dëkk mënatu fee delsi loola itam di ay jafe-jafe yoo xamante ni ni dox na diggam ak nasaraan bi waaye loolu lépp itam di coobare suñ borom rekk ñu gis ni diggante juróom-ñaari at yooyu yi nga xamante ni moom la nekk Touba sax ko fi ginnaaw bu mu fi génnewaatee ca korik bay sasin di 1312 dem ci liggéeyam bu mag boob yi del siwaatu fi ci dëkk bi waaye teewul nag ñëpp xam ak cofeelam ci barab bi ñépp xam itam ak yitteem ci bëgg barab bi ndax boo demee ci xasida gi nga xam moom la sañ dëkk bi mu wàccal ilaahi miskani tuuba abat misla smiha bi jaahi xayri man abat loolu nag bu fekkente ne ni mag ñi dañ koy jàng ci ab téere ñu génne sëriñ bi ci seen kanam ci diir bu néew bu mu fi dëkk diggante booba ak bi ñuy tegaat seen bët ci nangu ñaan gi doon fanweeri at ak lu topp loola dana ba tax tali yi gën a rafet njot ci ni lépp lu mu ñaan boroomam loola suñ boroom nangu na ko waaye nag lenn lu ci nekk itam daa am waxtu woo xamante ne ni bu jotee faw dana am ñu jóg ngir réalisé ñaanuk Cheikhul Khadim googu loolu moo tax bi mu jógee ci jaw la boob bi mu doon def mooy bi mu fi jógee ci 1895 dem Mbàkke Bari ay weer yu néew ñu jële ko fa mu dem ci liggéeyub géej gi juróom-ñetti at yu manqué tuuti mu del siwaat ci biir réew mi am fi ay weer yu néew ñu génnewaat ko mu dem Mauritanie sax fa ay at door faa jógewaat ñëw cayin jolof sax fay at ñu door ko faa jële indi ko njaareem mel na ni booba tubaab yi tële nañ waaye taxut ñu ñu dellu gannaaw taxut itam ñu tekki seen ngemb mooy jëmm ji ñor moom jaaxal na leen ci anam yëpp ndax loolu yi mu wax ni xos xayaatan la tura li xayri mujisatan baanat li usni xayri muy dund goo xamante ni nii doo ko gis ci kaneen histoire du la ko jàngal ci kaneen ak seeni pexe yu rëy yi nga xamante ne ni waxtu wu ci ne ñu ngi ko doon jànkonte ak moom ngir bëgg a fay lii muy def ak bëgg a génne génne ko jamono te waxtu wi suñ borom digg ak ségut ñooñu taxoon na jëmm ji doon kiimaan ci ñoom moo tax ma jàpp ni résidence surveillée bi dëgg la tubaab yi def nañ ko waaye jàpp naa ni am na leneen yuñ ci jubluwaatoon yoo xamante ne ni bu seen pexe réussiroon yaakaar naa faw jëmmi sëñ bi dana dem ci laboratoire ngir ñoom ñu jéem a jàngat kii ñu àndaloon ci diir bii te doon fexe lii mënta sotti te bi sun borom accès akub dogalam mu jàpp ni lool ban saaru nit la waaye moom it xam gu mu leen xam ak jaxasoo gu mu jaxasoo ñoom xam gum xam seen yéene taxoon na muy waaj waaj biir muy taxaw ak njabootam teg leen ci aw yoon nàmpatal leen ci boppam ba yitteem bëgg-bëggam jaral leen seen bakkan moo tax kii mag ci ak njabootam mu dénkoon ko ni ko naa dem Touba te bu xat damu mooy bu bu dara yëngu ndax kenn ku ci ne xam na ni su fekkee ci am xel rekk lañuy ñuy di jëfandikoo day gis ni sëriñ bi diiru fukki at yi mu dëkk njaareem yóbbu na njaareem ci nouveau boo xamante ne nii bu dul woon nekk nga fa sëriñ bi ne ca jamono yooyu Njaaréem mënta agsi foofu ndax mujj na doon pôle de développement boo xamante ne nii ci wàllu commerce foo ko gën a dox ci biir réew mi amut ndax seex su mag si installé ci biir Njaaréem sëriñ bi ne fa te waxtu ci nekk kenn ku ci nekk yaa ngi yéene ak am am pas-pasub li ngay gis ci jabi nga mën koo am njëg goo ko fàggoo ngir yot ko sëñ bi dëgguma la sëñ Ahmadou mais foofu am na précision bu ma bëgg li nga wax ni sëriñ bi digaloon na Cheikh Moustapha ni ko euh, bu boobaa nag ma yóbbu Touba te bu xat damm dafa am ñu ciy teg ni sëriñ bi def ko ni te bu ma ab tubaab tiim te loolu euh, wérul ndax bi xew-xew bi bi mu amee bi Cheikh Moustapha jógee ñaaxeen bi mu ñëwee ci timis ànd na ak sëriñ Balla Coro ba dem ci l'administrateur de Diourbel ñu doon ko wax Paal ànd nañu ak moom ba ñëw ba fii sëriñ bi nekk loolu tam bëgg naa nga préciser ko ndax dafa bari loolu ñuy wax ni sëriñ bi daf ni Cheikh Moustapha nang ma yóbbu Touba te bu ma ab tubaab tiim te loolu wérul sëñ bay loolu euh, waxkat yi bari damay wax ni yoon wi ñi leen tooñ mooy diwaankat yi fi jiitu ñoo dugal ci bopp nit ñi loo xamante ni nii danañ ci sonn loor ngir génne ko ndax ay histoire la yu baree bari yoo xamante ne dañ ko fabriqué dugal ko ci bopp nit ñi te loolu amut yaakaar naa sax desutu ko mën a génne. loolu mooy mooy jafe-jafe bi am sëriñ bi ba bañul ab tubaab tiim ko sëriñ bi bu bu xat damm la wax ndax njaareem da cee àggoon ci wàllu commerce foo xamante ni nii ak aw dëkkin la koy tas rek mooy demuk sëñ bi Touba déplacement bi sëñ bi rek moo mënoon a indi jafe-jafe ci loolu. toguma la parce que ci rapport bi nga xamante ni bii l'administrateur de Diourbel def na ko mi ngi doon wax ni sëñ bi dañ ko yóbbu provisoirement. di ci ñëw sax stratégie bi Cheikh Moustapha def ba yóbbu sëriñ bi ba indi sëriñ bi Touba waaye ñoom dañu waxoon ni provisoirement bu jàllee dañu koy delloo siwaat avec l' accord de Mouhamadou Moustapha Diourbel ndax bu dul loolu Touba dana doon lieu de pèlerinage boobu dana rey commerce bu Diourbel ni nga ko waxee. lool loolu loolu yi mooy mooy mooy li wér ndax comptoir commercial yu mag yi ñu xamoon ci Sénégal yëpp amu ci benn bu ci amul woon ab représentant te loolu dara warul ko doodul commerce bu dox. loola wóor na leen ni génnuk sëñ bi njaareem moo xam muy dund wala gannaaw bakkanam la jafe-jafe bu mag mag la indi seex su mag yi itam amoon nañuy kër am fay njaboot ñooñu itam installé woon nañ ba jàpp ni amatul beneen jëmukaay beneen destination buñ mën a jëm fudul foofa ndax nekk fi sëñ bi ne tuubaa gii nga xamante ne ni mooy bëgguk sëriñ bi nga xamante ne ni bu fekkonte ne ni dañ dañu am na lu mën a jeexital dëgg dëgg ci xolam dañ naan Touba am na ay jamono yoo xam ne yabal na fi ay cheikh yoo xamante ni dañoo takk seen i bagage delluwaat ndax ñàkk fe mën a ne te xam nañ ni dikku sëriñ bi Touba mooy màggu dëkk bi loolu moo taxoon mu ni naa dem Touba te bu xat damm waaye sëriñ bi bañul ab tubaab tiim ko ndax mille cent depuis 1895 ba 1927 mook ñoom tàggalikoo wuñ benn yoon bi nga xamante ne nii loola ak bëgg ma mu wax Cheikh Mouhamadul Moustapha ni ko naa dem Touba te bu xat damm moo tax keroog bi nga xamante ne nii sunu boroom ñëw na akub dogalam te Cheikh Mouhamadul Moustapha doogee jaarul ñaaxeen jaar gaawaan fekk fa mbokkam ma waajuram maam Cheikh mu maslaak moom jóge fa ñëw njaareem diggante tisbaar ak takkusaan nga xam ne tisbaar weesu na te takkusaan jotagut mag ñi wax ko li ñu ñaaw njort ci ni moo am ndax gëjëguñ gëjë gis sëñ bi te xamuñu ci moom dara te loolu gëj na koo def waaye moom mu ànd akuk dal wettili ko yàlla itam xam ne dara mënta xew lu dul suñ borom dogal te li yàlla dogal ab junni sañu ko naqarlu mën na ko mettilu waaye sañu koo naqarlu mu ànd akuk dal ak pas-pas bu dëgër ba ca bañ jullee timis ba pare mu tàbbi ca biir kër ga ba ñu gëstoo ba xam ne dëgg dëgg la suñ borom digee woon loolu agsi na tey mu xam ne moom responsabilité agsi na ci kawam boo xamante ni nii amul kenn ku dox diggam ak responsabilité moo tax sëñ bay jax daan ko sayam wu rëy wañ daan musloo ko daw la la yan keroog it la xam ni tey jii moo taxoon sëñ bi doon ko waajal ndax sëriñ bi moom kenn ku ne xam na ni fii mu tëdd tey doonut lu mën a ñàkk te dénkoon na ko Cheikh Mouhamadul Moustapha dénkoon na ko borom Daarul Muxti itam batale woon na loola sëñ Moussa ŋànk ko te sëñ bi waxoon na ko itam nag yi nga xamante ne nii jàpp nañu mën na caa doon ay gàllankoor ba tax yooyu yëpp sëñ Moussa jël ay matuwaayam ci nan lay fexe ba sëriñ bi ñëw Tuuba ndax bu fekkente ni sincèrement la sëñ Moussa amuloon droit déplacer sëñ bi te tubaab bi yow ndax ci résidence surveillée la ne te booba ñoom ñoo yor àtte réew mi ñoo yor doole ji moo tax ba mbir ma xewee sëñ Balla Coro la àndal dem ci kër commandant Edmo Pall dañu dafa fekk commandant bi wàcc ba dem këram sëñ Moussa foofa la ko fekk wax ko ni ko sëriñ bi dafa génn àdduna loolu nag damay wax ni xëjul ci bopp tubaab bi ndax diggante bi ñu ànd ak sëñ bi doon ko jéem muta yëguñu feebaram bindaluñ ko ordinance consulté wuñ ko defuñu dara ñu ñëw ñi leen génn àdduna loolu tubaab mënu koo gëm moo tax commandant bi dafa déplacé wu ñëw ànd ak moom sëñ Saliou Mbacke ambassadeur moom Cheikh Mouhamadou Moustapha nettali ni sax tubaab bi muy ñëw ànd naag benn médecin boo xamante ni nit ku ñuul la eh, consulté ba def certificat de décès boobu mu bind ci lañ sukkandiku télégramme gouverneur général xamal ni ko sëñ bi génn àdduna sëñ Moussa tekki nag ni ko dama koy yóbbu ci këram gi ci Touba. commandant bi it wax na ko ni ko loolu faaw ma ko ci ak samay kilifa même commandant bi mi wax ak gouverneur général dafa wax sëñ Moussa ni ko li may wax yaa ma koy wax parce que ñoo mënuñu woon a am yàqin ci ni sëñ bi génn àdduna yax jàpp ñu woon ni loolu war naa mën a ne ndax fi ñu jaar ak moom te jéemal ko seen bopp te sottiwul bi nga xamante ne ni loolu am na danañ commandant bi wax na ko sax ni ko teeñoo xaar ba suba waaye sëñ Moussa xamal ni ko loolu moom du mën a ne ndax bu ñu xaaree ba suba kenn du ko mën a lijjanti wax na itam ni boobu nee nañ ko nañ ko yóbbu provisoirement ndax xëy nag gis na ak dal gisul yenn jalt jalt gisul benn loo xamante ni nii luy indi ab yëngutu la ci lu mën a jur xëy na ak ñàkk jàmm wala fitna tax na mu amu xel mu dal ci ni kon mën nañ ko yóbbu commandant bi bi mu retourné dellu këram Cheikh Mouhamadou Moussa ne ci wàccaay waajal sëriñ bi ngir mu dem commanda bi après wutaat na ay soldaar lu mat fukk ak ñaar ñu ñëw encharcler kër gi waaye fekk na booba waajal nañ sëñ bi ba indi otop sëñ Balla Coro muy ab delaay boo xamante ku ñu wax du Siise moo doon dawal oto ba waaye moom itam dañ koo nax wax ko ni ko sëriñ bi daa am bagage yu mu bëgg a yóbbul Tuuba te nee na ndax oto bi dana mën a génn ba génn dëkk bi te ay lumière am du tàkk mu ni loolu dana ko man moo tax dem na ba àgg Tuuba te xamut li ñu yanu ñooñu ñi nga xamante ni doon nañ ne ci penc mi di comaati it sëñ Cheikh fa tàkku ci lettali bu leer boo xam ne sëñ Ablaye la seqaloon waxtaan wa ne leen gis wax leen ni leen ni sëñ bi nee na nañ dem ca buntu sowu ba ñu jàng fa alxuraan ña ci des mu wax leen ñu jàng xasida yooyu yëpp itam ngir kamu fule li nga xamante ne ni moo xew te xajugul ci bopp doomu aadama te buñ ko indee mën naa indi yëngutu boo xamante ne nii li sëñ bi bëgg ci dem Touba gi loolu du mën a sotti nga xamante ne nii loolu loolu am na nga xam ni bari na sax ñoo xam ne dañuy nettali naan sëñ Moussa da ko yóbbu ba Ndula door ñëw wax ko tubaab bi yooyu yëpp itam nit ñi ñu ngi ci wax waaye ay débat yoo xamante ne nii wérul am na ñeneen itam ñu doon wax naan kaneen dafa faatu woon kooku lañ laxas yóbbu Touba waaye man leen kon konte kon booba néew bu barkeel la moom bu fekkee <laughs> loolu mën naa am waaye yooyu yëpp li ñuy wax ak ñàkk ko teg ci cëslaay yu wér ak yenn xeet yuy doyadil ay wax rek yooyu moo moo cay dugg waaye loolu amul booba itam la Cheikh Mouhamadou Moussa jox sëñ Ablaye Diop lew na ab oto commanda bi boole ko ak moom mu dem ci bo Darou yi wax ko ni ko ka woon njaareem nee na nañ daje Touba. doguma la sëñ Ahmadou. niteeg Cheikh Mouhamadul Moustapha. musta teg dara ci ak ndaanute lépp ci nit la ko doon teg ndax noonu nga ko doon noonu nga ko waxe waxee eh, tubaab kenn ku ne xam na ni mel ci xaalis te dégg nga eh, sëñ Cheikh Fatak Diop nee na xaalis bi kenn ku ne lu la ci saw fit mayoon rek mhm. mas man nga ko cee def kenn du ko wàññi kenn du la contrôler sëriñ bi wax na commandant ni ko léegi dama lay dénk maanaam xaalis bi nekk ci kër sëñ bi laa bëgg ngeen saytu ko nga xamante ne un fonctionnaire nommé Lilane nekkoon ci chambre de commerce bu euh, euh, Kaolack moom moo doon saytu xaalis ba ni ko sëñ euh, sëñ Cheikh Fatak Diop waxee nga xam dañ ko doon def ci ay jaafira fi ñu dugal kaamil yi kenn contrôlé wu leen ñu jël ko yóbbu ko kër commandant mettre ko sous scellé nga xamante ni ñoom booba ña ngay caxat caxati di toppatoo xaalis ba peut-être ña nga cey jël lu ñu leen joxul loola moo leen ñor fekk na booba Cheikh Mamadou Moustapha moom waajal nañu ko tedd ki ba rakkam Cheikh Mamadul Bachir ak ñam koy booleel ñu jël ko euh, ngir yóbbu ko Touba li nga wax itam ni sëriñ bi dénkoon na euh, Cheikh Moustapha ngir mu indi ko Touba waaye dénkoon na ko borom daarul Mooti tam précision bi ma ciy indi mooy sëriñ bi bi mu gisee pakk bi di Touba en 1888 keroog bi mu àndeek borom daarul Mooti ba fii jumaa ji nekk tey bépp gi fi nekkoon sëriñ bi wan na ko ni ko fii mooy doon sama barab. booba buum jafe na borom dara muti ak xànc la wut teg ko ca béb ga teg ko fa ko sëriñ bi waxoon lem xànc ga denc li sëñ bi dem ci géej gi gànnaar ceyeen njaareem kere bi euh, ni nga ko waxee sëñ Abdoulaye Diop lew na bi ko Cheikh Moustapha yebalee ngir muni borom daaru muti sëñ bi nee na ngeen daje euh, Touba keroog la borom daaru muti jël xànc ga yóbbaale kon bëgg-bëggub sëriñ Touba la mu bëgg rek ay am dénkoon na ko borom daarul Muxti te c'était en 1888 euh, euh, euh, bi muy doog a gis Touba waaye noonu nga ko waxee kon dénkoon na ko Cheikh Moustapha ndax Cheikh Moustapha tubaab yi mas nañu koo woolu doon wax ci làqu sëñ bi ba mu ñëwee sëñ bi ni ko lu ñu wax mu ni ko dañ ni di boobaa fii la sëñ bi ni ko bu boobaa Touba la kon ala kulli xaal li sëriñ bi bëgg rek mooy am dénkoon na ko borom daarul Muxti sëñ Cheikh Fatta Diop sëñ Cheikh Fatta Diop nee na. bi borom daaru muuti ñëwee bañ ko laajee lu ko sëñ bi waxoon dafa leen a xamal ni leen fii newoon na alxuraan la fii dëkkaaleel kon xànc ga la teg fa mu ko tegoon ca bépp ga ba indi ko fi ko sëñ bi waxoon ba ko seetee ñu fekk fa xamtuwaay ya ko seriñ bi waxoon kon seriñ bi munul woon a nekk fenn gannaaw bu mu tànnee dëkkaale ji ak boromam fudul Touba ndax ni nga ko waxee jéem nañu ko jël bakkanam ñaar téeméeri yoon ak juróom ñett fukki yoon ak juróom masoon na wax ak aw nit banaa nattu yiñ ma teg li mu suratul ahwaani lañ teg Serigne Touba kon loolee mu dénkoon Cheikh mustafa Moustapha dénk ko borom Daaru Muuti da doon lu ko ñor waaye Cheikh Moustapha taxaw na ba loolu am sëñ Ahmadou jërëjëf Serigne Bay ndax euh, loolu sëriñ bi daf cee préciser ay yoon muy dénkaani goog yi nga xamante ne ni moom la dénk ak njabootam gannaawam ndax loolu yi nga wax ci sanc bi mu waxoon ko borom Darou Mouhty moo tax keroog ba sëñ Ablaye Diop lew na demee wax borom Darou dañu ko kon njaari mat naa jaari sëñ lay ni ko sëñ moo du tuubaa la ma wax mu ni ko nan def li wax waaye sëñ bi dama waxoon ni ma bu ma des njaareem te ndénkaan dafa for loolu mooy xam ne wax na ci ak ñoom ay yoon ñu gis ni itam ni bokk na ci stratégie sëñ bi. muy jàngal ak njabootam àdduna ndax sëñ bi waxoon na sëñ Moussa ni ko tubaab tubaab xaalis xamoon nañ ay nit lañ yoo xamante ne nii xaalis rek lañ gëm mën na leen a fàbbi ci yu bari mën na leen a dugal itam ci yu baree bari waxoon na leen itam ni doomu adama yëpp mënees na leen a sol ci menn mbedd waaye mbeddum teraanga lay doon mbeddum teraanga nag ci nga mën a jiitale ñëpp loolu itam ràññikoon na diggante Cheikh Mouhamadou Moustapha ak tubaab yi lii nga xamante ni nii sëriñ bi bëggoon na ko ci ak nekkam mu jafe mooy fanweeri atak ñett yoo xamante ne nii mënanta dellusiwaat Touba ba tam mënta tegewaat ci garab tànk mënatoo dox ci suuf si bi sun borom dikkee akub dogalam laata muy mat 24 heures la mu bëggoon sun borom defal nag ko te mooy dëkk Touba te deetu fi dox loolu lépp itam mi ngi aju rek ci niteeg Cheikh Mouhamadul Moustapha mhm. ci gëmam sëriñ bi ci ak tënkoom ci ndigal loola daf cay feeñ ndax noonu la yore yoon wi yoru ko ci ak daanukat yoru ko itam ci ak ëppal yoru ko itam ci sobental yi nga xamante ne ni moom la kilifa gi bëgg ñu gis ni ci événement boobu yi am gannaaw bi sëñ Saliou moom yi may wax muy doomi Cheikh Mouhamadou Moussa nettaliwaat na ni sëñ Blaat moo ko wax ñu ko tubaab yi ginnaaw bi événement bi jàllee nga xamante ne ni sëriñ bi jógee na njaareem léegi dem na Touba te wóor na ñëpp ni léegi dootu del si njaareem commencé na am ay jafe-jafe ci wàllu économie crise bi itam dugg si na laal na comptoir commercial yu mag yi commerce bi ni mu waroon a doxee doxeetul noonu ba tax na yenn ci impôts yi ñu leen doon teg ak yeneen droit yi ñu leen doon fayloo commencé naa metti ñoom nee naar libaane yi ak tubaab bi dañoo def délégation ñëw ci Cheikh Mouhamadul Moustapha ni ko léegi dañoo bëggoon daal waxtaan nañ ci suñ biir xam nañu sëriñ bi fa mu ne suuf du yàq yaramam léegi dañoo bëggoon jëliwaat ko rek indi ko njaareem buñ xëyee rek publier nii sëriñ bi dellu si na bu ko defee njaareem mel na melaatoon seeblaat nee na ko bañ koy wax loola maa nga toog mais sëñ Moussa dafa ràbbale ay cati baaraamam nii rek di ne ah loolu rek moo ci seen xalaata ñu ni quoi ah waaw loolu rek ci xalaat de mun leen néew ma li ngeen xalaat du am de waaye su dee ami sama bakkan bi du ko fekk sëriñ bi daal fi mu doon nii deetuma nangu mu randu jëm fenn sama bakkan du ko fekk sëñ Blaat nee na keroog laa xam ne kuy liggéey sëñ Tuubaa sa bakkan nga ci teg loolu feeñ na ci aw dundinam ak ay discours am ci engagement yoo xamante ni waxtu wute bu ko jëlee te yoon wi rek tax nga gis ni bakkanam la cay teg te loolu def jëlee waaye loolu lépp rek dafay wane njàmbaar gi nga xamante ne nii Cheikh Mouhamadul Moustapha am na ko ak fit wu rëy wi nga xamante ne nii am na ko ak ñeme responsabilité bi nga xamante ne nii suñ borom def na ko ci moom ndax booba ci ñeen fukki at la toll te wax na sëñ Mat Lamin Jóob moo ko nettali jataay boo xamante ne nii Cheikh Mouhamadul Moustapha la ak Seexul mi waajuram yàlla rek moo doon seenum ñetteel sëñ bi moo ko nettali sëñ Mat Lamin Jóob mu bind ko ni toog na ak sëriñ bi sëriñ bi xamal ko ak bëggam ci naalu mag wi nga xamante ne ni moo nenk ci pénc mi wax ko itam ak yum ko dénk yu baree bari wax ko nag ni ko yaway sama amir amir nag dañuy wax ni ab général la boo xamante ne nii bu manoon li muy def la ba tax ab buuram daan ko sant di ko kañ naan boo tëddee ba guddi say noon yee la neel pëkk pëkk amir te dem tëri te xam ne la ca war lépp amir dana ko def sëriñ bi loolu la doon juñ ji Cheikh Mouhamadou Moussa muy isa ay xasat ka urubul ayda fa nabbih la amiran su nam sëñ Moussa dem na ba bi mu réaliser jumaa ji la door a taxaw nag ni hada intibaahu amirihi xam ni la ko Sëñ Tuubaa doon juñ ji loolu àgg na waaye daal événement la boo xamante ne ni murit war nañ koy gëstu te teg ko ci xam-xam ndax lu xew ba pare la loo xamante ne ni ci kaw ak nite rek lañ ko lijjanti dara yi baatin newu ci ci ak nite akum xel ci la ko sëñ Mouhamadou Moustapha lijjanti waaye du doole joo xamante ne nii xabar xabar moo ko doon lijjanti du yëfi baatin tam ndax bu doon yëfi baatin rek sëñ Tuubaa ëpp ñëpp baatin maanaam kon maanoon naa waaye loolu doom aadama daf ko aadowoo wut moo tax suñ borom li mu aadoo ak doomu aadama mooy waxtu wu ci nekk mooy génn àdduna dana fi bàyyi njaboot goo xamante ni danañ la mën a taxaw te loola daa bokkoon ci li nga xamante ni nii sëriñ bi waajaloon na ko muy yar ak njabootam def ci ñoom fit ak jom ak ngor goo xamante ni nii lim leen dénk gannaaw seen dara ci noof nooflaay àdduna du tax ñu mën koo sàggane lenn itam lu leen nit mën a xëbale ba tax ñu teggi seen tànk mu jëm gannaaw loolu itam du am te loolu mooy lii nga xamante ni ni feeñ na ci demuk sëriñ bi xëy na tënkaayu waxtu wi moo tax waaye lu bare bari mënoon na ci dugg ci ak leeral loo xam ne dana tax bopp murid yi gën a ubbiku ci waxi daanukat yi nga xamante ni ñu ngi koy wax ak wax yoo xamante dañ koy fabriquer rek di ko wax te jenn amu ci cëslaay kenn du la mën a wax itam benn riwaaye bu wér boo xamante ni ci lañ ko jëlee amul. Eh, jërëjëf Serigne Ahmadou Ndiaye eh, kon eh, ni nga ko waxee rek poñ boobu bu ñu ko toppoon mën naa gudd lool. ndax nañ ko waxee sëriñ bi pàkk bi la bëggoon rek muy Touba Eh, gis naa ci archive yi tubaab yi di wax ni bi sëriñ bi nekkee euh, Paul Marty mooy wax loolu bi sëriñ bi nekkee Njaareem Cheikh Mahamadul Moustapha la yebal Touba sëriñ Falilou Mbakke sëriñ Massamba ak sëriñ Mbakke Boussa mu nekk Lasar eh, ña ngay bàyyi xel Cheikh Mahamadul Moustapha di wax ni war nañ koo bàyyi xel ndax ndaw la jàng na dégg na arab te it eh, wuute na ak waajuram sëriñ Touba kon ku jara bàyyi xel la kon euh, ku ñeme dañu laa dey te mas na maa dégg Cheikh Abdoul Khoudous Mbacké ñuy wax ci bis bu fi nit jógee danañ ko màggal wala duñ ko màggal ci màggalu Darou Mouhty 1984 mu wax ni euh, bi borom Darou Mouhty laqoo ba barax loo waaje dellu si magam sëriñam Cheikh Mamadou Awa Balla daf ko ni bindal Cheikh Moustapha leetar ñu ñaan ko ndigal ngir roy ko ci màggaluk ñaar fukki fan yi tamxarit Cheikh Abdoul Khoudous bind leetar sëñ Modou Moustapha jox leen ndigal ñu di ko màggal mu ni nag Cheikh Moustapha bu matul woon na mu doon du wutu seriñ Touba teyit it bu ko Serigne Touba jurul woon itam ak ragal yàllaam ak maandoom ak xam-xamam nu mu doxee rek noonu la waaye sëñ Ahmadou mu am lu bees loo xamante ni bii bi ma ko découvrir ci archive yi tubaab yi ak léegi matagul quinze jours ndekete tubaab yi ci seen bopp par l'intermédiaire de chef de canton bu nekkoon Bawol booba sëriñ baa ngi njaareem ñoo ni woon may ñu kenn ngay màggal ku fi bàyyi ko ñoom fiiraange gi ñu amoon jo jamono jooju parce que ab étude la woon bu ñu doon def ngir gis ni yoonu murid waa ngi tasaaroo ñu bëgg koo ndar kepp ba du génn Kajoor ak Bawal ca la ñuy wax ni un chef de canton moom la ñu jox ndigal mu ni cheikh yi cheikh yi murid yi képp koo xamante ni bii wàcc na ci ab liggéey may ñu kenn ñuy def anniversaire u dese ba di màggal ñoom tubaab yi ñoo tere woon ba ma ko gisee ci Cheikh Moustapha al Karim la sama xel njëkk a dem ma ni Serigne Modou Moustapha day war nañ koo sant gërëm ko ndax li fi sëñ bi nekk lépp kenn màggalul bis bu fi nit bàyyi ko ndekete tubaab yi ñoo ko tere woon Cheikh Moustapha nag ndigalul tubaab loole bëtt na ko ba indi màggaluk ñaar fukki fan yi tamxarit bi loolu tam bind bu bees la buy doog a feeñ ndekete ñoom tubaab yi ñoo tere woon ni murid yi ku ci faatu moom boobu sax cheikh see leen taxoon di wax mm-hmm. ndax boobu sëriñ baa ngi njaareem ku ci faatu may ñu lu ñu di la màggalal kon Cheikh Mahamadul Moustapha taxaw na taxawaay bu mat sëkk ba indi sëriñ bi barab bii di Touba te xat dëmmul Touba bi gis naa seen ñaari dossier yoo xam benn bu ci nekk dañuy wax ni sëriñ bi provisoirement lañu koy indi Touba bu jàllee ñu delloosi ko eh, njaareem kon dañuy tëj point boobu muy tomb bi nga xamante ni mooy indi gi mu indi Serigne Touba njaareem tàbbi nag ci ñaareelu tomb bi muy ndiggal li ba léegi di tabax gi nga xamante ni bii mooy jumaay eh, Touba waaye ba bala ñu cee tàbbi nag dañuy ñëw ci li jële raay bi njaareem ba indi ko eh, Touba ndax foofu sëñ Ahmadou dafa am lay woo xamante ni Touba bi dañ ñu koo jox ñun ba ñu koy jëfandikoo te lay woowu taxawul mooy tubaab yi dañ ni sëñ Modou Moustapha ngir nga tabax jumaa ji matériel bi saxaar rek moo koy indi moo koy mën a indi te saxaar du daw euh, ci ganuuf il faut da ngay wut ab raay ma ni loolu ça ne tient ndax fi ñu toll gros producteur ba nekk Saloum di béy gertem bay ay 1000 tonnes kenn du ko ni kër sa gerte gi ngir nga jaayi ko liñ koy mën a wax kay mooy suñuy camion ngi nii dangay fey fay ab tontu liñ doon wax muy transport ñu yóbbul la ko waaye kenn du ko ni dangay ngay defub tali ngir camion yi mën cee jaar ngir yóbbu sa gerte kon du woon yoon tubaab yi nii sëñ Modou sa da dangay defarub raay ngir matériaux yi ñu tabaxee jumaa yi ji mën a dem lañ ko mënoon a wax kay mooy danoon defar raay bi bu ñu la transporter nangami tonni ciment wala nangami tonifère da nga nuy fay kon jëfi état kenn du ko jëfloo mbindeef un individu te loolu la ñuy def loo sëñ Mouhamadou Moustapha raay bi chemin de fer ci 1879 euh, la ñu xaatimante woon ak Lat Joor ngir jëlee ko Ndakaaru ba yóbbu ko Ndar 1882 bi ñu bëggee tàmbali Lat Joor ni du ca daal ca la ñu ko folli ca la ko topp ba ni ñu ko faate kon mbir ngi noonu mu jar a leeral sëñ euh, Ahmadou mooy raayu njaareem Touba bi Cheikh Moustapha waru ko woon a def l' état française ñoo ko war na def te le président de la république française euh, euh, euh, Gaston Doumergue jël na benn décret ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier 1931 dégagé 22 millions 975 mille ngir jëlee raay bi njaareem ba indi ko Touba kon loola moo doon yoon bu paree nag sëñ Modou Moustapha buy transporter ciment ak fer ñu fay ko ni ko ton sangam nangam ngay fay waaye xaalis boobe ba léegi kenn xamul fa mu jaar te danañ ci ñëw ci jumaa ji muy scandale bi nga xamante ni l'administrateur de Thiès tëlër yi defoon na ko lekkoon ci xaalis juróomi millions yi ñu dajale woon jumaa ji waaye scandale boobu vingt deux millions neuf cent soixante quinze mille yi nga xamante ni euh, ci journal officiel bopp France boo xamante ni mi ngi génnoon ci ba fukki fan ak benn ci weeru mars boo demee di nga ca fekk décret boobu le euh, ministre des colonies moo demandé autorisation pour ñu dégager fonds yi ñu ni but budget local bi dana ko mën a financer ba ñu génne ko kon xaalis boobu fan la jaar kon sëñ Ahmadou Ndiaye Nguerane dama bëgg nu ñëw ci ñaareelu point bi bala ñëw ci jumaa ji mooy yoonu saxaar bi bàyyi ko njaareem ba ñëw eh, Touba. jërëjëf sëñ Bay aju ci ñaareelu jataay bi te lépp rek jëm ci liggéey yu mag yi nga xamante ne nii Cheikh Mouhamadul Moustapha taxawee na ko te sëriñ Tuubaa rekk tax muy liggéey yu am solo yoo xamante ne ni mat nay waxtaane ngir nu gën a am jom gën a laxasaayuwaat ci gën a wane sunu njàmbaar ci liggéey ak tële moom mënatul a feeñ yaafus nag mën na am waaye tële mënatul a feeñ ndax réalisation yu am solo yoo xamante ni nii jëmm ji ñuy waxtaane bi mu koy def booba ay moyens amut dafa créer ay moyens pour def dara noonu lépp a ngi ni gàññi ba pare mënagunoo seqi ab jéego kon am na lu xew yi wax ni liggéey yooyu yi nga xamante ne nii ay naal la woon yu fi sëriñ bi bàyyi woon te Cheikh Mouhamadul Moustapha war koo taxawe gannaawam day naal yu am solo yoo xamante ni nii ginnaaw bi ñun ñëpp xam nañ ni yu amal yoon wi njariñ la waaye ñi ko doon tër lañ ci jublu woon mooy gàllankoor lañ ci jublu woon waaye gisuñu ca woon ay avantages yoo xamante ni jàpp nañ ni war na ko mën a jur waaye gàllankoor rek lañ jumoon muy juma kenn ku ne xam na li muy symboliser ci lislaam rawatina nag jumaay sëñ Touba ci senegal kenn ku ne itam xam diggante sëñ bi ak tubaab yi ci bëre bu ñu bëre bëre bu yàgg te metti bëre boo xamante ni ni tubaab yi dañ cee échec te naal woow yi ñuy waaj a taxawal dafay wane rek ndamal sëñ Tuubaa ci seen kaw ndax lool yi lañ ko waxoon ni ko mënta ne lool yi lañ ko waxee na ko du fi amee lool yi lañ leen woon danaa ko samp bu ca bëggee samp lu ni lëng loo xamante ne ni nag ki ku gestu gis ko loola victoire la ci seen kaw boo xamante ne ni arrangé wu leen loolu moo taxoon ay gàllankoor yu judd ci biir yu ne ci suuf yoo xamante ne nii boo jëfandikoowut sam xel walla nga def ay étude yu xóot ci wàllu doxinu yëf yi mën nga ko bañ a xam moo tax ginnaaw sëriñ bi bi mu tuddee wax waxi jumaa rek tubaab yi indil ko gàllankoor ndax mën nañu wax sax ni gàllankoor yi ci sëriñ bi la tàmbale woon ndax ba mu ko bëggee ñu bind loo ko demande muy dafay dafay faw mu ñaan te moom mu waxoon ni du leen ñaan dara ndax soxla lu leen dara lu mu bëgg rek borom la koy ñaan waaye ci wàllu administration nag dañoo baaxoo bind mu binduloo loo sëñ bu Buso wan ni mbind mi ci ndigalam lañ ko bind bañ ko mayee ndigalul mu def ko it tegaloon nañ koy condition mooy faaw nga am compte banque faaw ñu dajale xaalis def ci su xaalis amee ñu liggéey su jeexee ñu taxaw buñ dajalewaatee ñu tàmbale loola moo doon sababug sëriñ bi doon laaj ñaar fukk ak juróom-ñett waxoon ni képp ku ko mën a joxe na ko joxe ku ko mënta joxe ka amee sa kilifteef na la ko joxeel waxoon ni itam ni ku ko joxe mooy sa njot ci sawara ndax ci liggéey bi yàlla la jëmoon boo xamante ne nii mënta ñàkk te moo desoon ci ab liggéeyam tey loola kenn ku ne xam na ni loolee sëriñ bi wax kenn ku ne mën nga ko layal sa bopp te du jar sax ngay xalaat ji wax fan la ko sëñ bi teg ndax dangay wax ni naal wi nga xamante ni mooy ci ne ci pénc mi ëllëg yomal xiyaam buñ ko tegee ca péncum suñu borom ma ku ci defoon sa dara da nga bëgg loola rek mën naa yóbbu nit fu ne ci ay daraja ak ay wàccuwaay yóbbu bare bare bi nga xamee ne loolu yi am na loolu tubaab yi ay gàllankoor lañ jublu woon tëllër yi liggéey bi li mu engagé du domaine am wu ko waaye xam na murit ak seenu bëgg ak seenu xër ci seen bëgg-bëgg ak li mu leen jaral ba tax ay war dugg ca ay jafe-jafe dugg ca ba tax liggéey ba gàllankooru ba fukki weer rek lañ ci jot yëngu ci njiital borom darul mooti nga xamante ne ni bi sëñ bi nekk li muy joxe ci ay ndigal ñu di ko def moo ciy jiitu nekk ci kanam doon jëwri jëwriñam loolu def na ci effort yu bare bari ànd ko ak seex si nga xamante ni ñoo nekk ci yoon wi diiru fukki weer ndax ñaar fukki fan ak juróom ci weeru safar ci Hamzazine la borom daarul moxti yi jógee daarul moxti yi ñëw campé Touba ngir lëggéeyub sëñ tubaab bu mag boobu yi nga xamante ni moom la ko sëñ bi joxoon digal ni ko nañ ko tàmbali te na ko mbàkki bu sa xeblal fukki weer lañ ca liggéey ndax ca tabaski wa la liggéey ba loolu fukki weer la liggéey bi ami jafe tubaab yi suspendre autorisation bi nga xamante ne ni moom lañ mayoon sëñ bi ngir jumaa ji mën a tàmbali. Euh, foofu am na benn précision boo fi indi ni ko waxee ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba procuration lay jox Cheikh Mahamadul Moustapha maa ngi procuration bi euh, contrat bi dañoo wax ni deux parties benn partie bi mooy l' administrateur de Thiès di Tellerie deuxième partie bi ñu ni Cheikh Ahmadou Bamba jox na euh, procuration Balla Mbacké notable à Diourbel ak Mouhamadou Moustapha chef de village de di dem nag indi charte ya nga xamante ni bii moom mooy contrat bi ni ñu koy signantee ndax ni nga ko waxee toller euh, toller yi bëgg xaalis moo ko dugaloon ba taxoon na mu daal di demander congé daal di bëgg a bàyyi euh, commandant gi mu doonoon wax dem na ba ci biir ñu ni mu di juróomi millions yi ñu dajale moom daal na cey jël un million cinq cent mille ni itam ci contrat bi seen cinq millions fu may tabax jumaa ji ba su millions yi jeex foofa lay taxawe wax ci yu baree baree bëri euh, Blaise Diagne mi fi nekkoon jëkka doon euh, député bu ñuul amoon na journalu boppam bu daan génn mu def ca benn article di di dénoncer dal ci kaw télé yi xamal ko ni koy abus de pouvoir nga def lii nga def tegoo ko fenn ba taxoon na mu defoon ko citation directe ba ñu am tribunal boo xamante ni dafa dul xaj waaye France Paris la ñu defee tribinal ba ñu acquitté euh, ki nga xamante ni bii mooy euh, Blaise Diagne kon ni nga ko waxee l' administrateur Teleri gisoon na xaalis bi bari mu bëgg koo lekk waaye la mu duggoon xamu ca dara loolee nag ba nga xamante ni tribunal ba am na te euh, Blaise am ca ndam loolu taxoon na tubaab yi suspendre ni nga ko waxee autorisation jumaa ji ba nga xamante ni Cheikh Mamadou Moustapha gannaaw waajuram lenn lu nekk dajaat na ko ba tëlëri moomu moom sëñ euh, sëñ Modou Moussa en 1934 def na ko citation directe ci euh, tribunal hors classe bu Dakar ci le 30 octobre 1934 dal ci kawam ba ñoom tubaab yi li leen jaaxaloon mooy kii ndaw la euh, at yi bariwul fitu attaquer l' administrateur de Thiès loolu jaaxaloon na tubaab yi sëñ Ahmadou. waaw jërëjëf sëñ Mbaye ginnaaw boo xamante ne nii jafe-jafe yooyu. am na la ca dolli ko rek mooy ñibb si sëriñ bi Touba nga xam ne kon sëriñ bi bi muy dem bàyyiwu fi autorisation tabax jumaay Touba bëgg gaa gi fi nag dénk na ko njabootam tàmbali woon nañ ko sànc ba taxaw na moo tax mu waxoon Cheikh Mouhamadou Moustapha ni ko jumaa ci sama loxo damm na ci sa loxo damm tubaab yi itam nag seenug caay-caay tax na ñu ni léegi nañ ko may jumaa ba pare xañ ko jumaa ndax xam nañ sëñ Moussa ak bëggam ak yitteem ci ndénkaan lii ko waajur wi dénk tax na ay doxam guddi ak bëccëg lépp mooy nan lay def ba renouveler waat autorisation bi ñu mayoon sëñ bi ngir tabax jumaay Tuubaa tubaab yi ni nañ ko ko may te xañ ko niñ ko koy maye mooy léegi nañ ko accordé autorisation bi waaye li ko koy xañ mooy dañ koy teg condition yoo xam ne du ko man su ko defee dana bàyyi te suñ diggante ak moom du yàqu ndax ku ñu amal njariñ la ci wàll yëpp loolu moo tax ñu wax ko ni ko léegi il faut nga bind administration française pour demande yoonu saxaar parce que yoonu saxaar yi nga xamante ni moom lañu waroon a teg yëpp teg nañ ko ba pare te mooy Dakar Thiès Louga Linguère Dakar saint bi dem na loolu itam Kaolack Lindiane bi boobu te yooyu yëpp gis nañ ni seeni intérêt la ndax benn bi arachide bi ñuy transporter di ko jëlee ci dëkk yi di ko collecter yeneen yi ci des xëy na lu jëm ci wàllu ndawal buñ ko soxlaa te mu war a jóge Jolof te mën a jaar ci yoon saxaar yi ak seen lieu de commercial yi nga xamante ni bëgg nañ koo lëkkale waaye dañ jàpp ni tubaab yi gisuñu woon benn intérêt ci diggante njaarim ak Touba ñu tëral fi yoonu saxaar ndax booba Touba ko dëkk boo xamante ni nii bu jamono reconnaître la ba nit ñi man fee wàbb di fi jëm ba tax ñu tëral fi investir fi alal ju mel noonu loolu jafe-jafe la woon. Euh, doguma la gaar bi nga xamante ni moom lañu njëkk a inauguré muy euh, euh, Diourbel Mbacké maa ngi ak bu ñu bindoon di wax nii li ñu jublu ci saxaar gi mooy yombal transport tukkikat yi ak marchandise yi mhm. kon nga xamante ni la ñu waxoon Cheikh Moustapha loolu ay war la waaye waxu ñu ndax bu fekkonte ni jumaa jee ko taxoon a jóg kon danañu ni kat ñi ngi ubbi Mbàkke waaye léegi ñu egg Touba ngir euh, matériaux yi war a tabax jumaa ji waaye ñoom la ñuy wax rek mooy euh, lii dana yokk koom-koomum euh, Mbàkke ndax dana yombal transportu dem ak dikk bi ak marchandise yi. jërëjëf sëñ Bay jumaa ji moom tubaab yi mosuñu cee d'accord ndax bàkku sëñ Tuubaa la ci seen kaw te loolu moom ak gisin wu ci waaye mën a xalaat moom doonut woon lu neex ci ñoom waaye amuñu pexe ndax suñ borom a leen not faw nangu faw itam liggéey bi daan sont moo tax bi sëñ bi bindee demande autorisation bi Bouna Albouri ci conseil privé la bokk moom moo yóbbu lettre ba ci réunion bu ñu amoon ci conseil privé ñu teg ko ci taabal ji ñu d'accord ci nañ ko yóbbu ci gouvernement français bi ñoom ñoo ci am droit valider ko léegi bu ko defee sëñ Modou xaar tontu ñu demee ab diir ñu woowaat ko ci commanda bu Diourbel xamal ni ko lettre ba àgg na ñu ngi koy étudier ginnaaw bi ñu woowaat ko xamal ko ni ko léegi d'accord nañ ci waaye ci ay conditions conditions yooyu ñu nga xamante ni moom lañu wax ni moom lañ koy tegal mooy conditions yu diis a diis yoo xamante ni nii su fekkonte ni nii du nit ku am jom du fekkonte ni nii du nit ku nangoo léggéey du doon koo xamante ni nii amut gëm-gëm ci li muy def loola nëga ni ba léegi ñu ngi xalaat li sëñ bi waxoon nan lañ koy réaliser waaye condition yi ko tubaab yi tegaloon mooy ay ouvrier fan nga koy jële ndax ñoom mën nañ koo jox ay technicien mais ouvrier yi ñu am dañ leen di yóbbu Madagascar parce que foofu lañ am ay sànc léegi nag su fekkee mën naa am ay ouvrier euh, léegi ay mineur léegi ñu indil ko ay technicien te loolu lim bi mi ngi tolloon ci junni nit ak juróomi téeméer lañ waxoon ni ko mooy lim bi nga xamante ne ni seet nañ ko moo war a liggéey yoonu saxaar gi suñu Moussa ni leen léegi nangu na moom mën naa wut lim boobu ñu waxoon ni ko lim boobu yi nag li ñu war a dundee ceeb lay doon te day am diwlin te dafay am ndawal parce que liggéeyu suuf dafa diis mënta doon cere mënta doon laax loolu itam ci moom lañ ko bëgg a gàcc loolu itam bokk na ci accords yi sëñ Moussa nangu ko ne nangu naa ñu waxaat ko itam ni ko junni nit ak juróomi téeméer yooyu yi nga fi dajale su ñu demee ba kenn tooñ ci ba yoon di leen topp ci yow lañ koy àtte ndax yaa leen fi dajale loolu itam mu wax leen ni leen ni nangu naa ko mu bokk yi itam ci accords yi nga xamante ne ni signante woon nañ ko ak moom muy diggante Jurbel ak tuuba estimation bi ñu def mooy cinquante kilomètres la kilomètre bu ne deux cent mille muy dix millions loolu itam bokk na ci sart yi nga xamante ni moom lañ ko tëraloon moom it mu gàccoo ko ni nangu na ñu waxaat ko itam ni ko léegi diggante Jurbel ak Touba suuf si moomoo ko su fekkee daa joor toolub jàmbur te borom di laaj des dédommagements yaa koy jox loolu itam mu gàccoo ko ni leen nangu na mu àggaat ci itam ci délai bi. ñoo xamal ni ko daal léegi diiru juróom-ñaari at xëy na liggéey bi mën na ko am parce que jàppoon jàppu yoon ni liggéey bi lu war a mën a gaaw la ni ko léegi su weesoo loolu fu yam yem fa lañ koy yemale ndax dañoo am yeneen occupation yoo xamante ne nii dañ caa war a jublu loolu itam mu wax ni nangu na sëñ Moussa teg ca ni tubaab yi day buñ ca tegoon ni ma da ngay sol ju soldaar li tàmbalee app sàngam ba app sàngam mooy tax nga mën a am yoon saxaar ma dem sol ju soldaar ndax la liggéeyub sëñ Bàmba bi jaral na ma ko loola mooy xam xamle rek ni ak li ñu wax lépp loolu moom tuusewu ko taxu ko dellu gannaaw taxul mu yokkat jàpp na ni loolu dara ndax lu nit man la rek jooy itam da danga ci xame jom ji nga xamante ni ni am na ko léegi tubaab yi door ko envoyé techniciens yi nga xamante ni nii ñoo war a jógee jeunes yi France pour ñëw muy fukki tubaab ak ñaar yoo xam ne ñu ngi leen dalaloon ci école Ibrahima Thioy bi nekk euh, ci Njaareem foofu lañ leen dalaloon boobu muy école régionale foofu lañ leen dalaloon. bi saxaar gi tàmbali ci la 11 novembre 1928 lañ ko tàmbali jeex ci la 14 février 1931 ci la liggéey bi jeex liggéey bi lépp diire ñaari at. ak ñeenti weer léeg-léeg nag nga dégg murit yi seenu xër naan liggéey bi juróom-ñaari weer lañ ko liggéey waaye loolu du wax joo xamante ni ju tege fenn la amut benn cëslaay ndax gas bi rek fukki weer ak juróom ci lañ ko gas te man yàlla dogal na ku ñuy wax Ibrahima Fall Maajoor fekk naa ko fii toog naa ci moom ay jataay yu bare bari mu wax ni liste mille cinq cent personnes yi moom moo ko doon bind ak ku ñuy wax Seex Kan ak Ibra Fall Buri ñoom ñett la ko sëñ Moussa confié woon ñoo ko doon bind nga xamante ni ni 1500 personnes yooyu itam tubaab yi dañu leen a xaaj ay groupe groupe de 45 muy day am de d'équipe am ab gardien am ab tosigné ab ab convoyeur amu planton quarante yi ci des ñoo yor pik ak pelle léegi par juróomi groupe juróom benn groupe la ñuy boole wutal leen benn surveillant léegi suñ paree wutal leen benn surveillant général surveillant général boobu yi mooy am euh, Modou Gueye chef la woon taalibe sëñ Massamba mooy jurum am satu Gueye motariste nga xamante ni ci ñi daan dar président Senghor di yor motar yi am satu Gueye moomu ci la bokkoon Modou Gueye baa moom moo doon surveillant général bi surveillant général booba juróomi dërëm lañ koy fay par jour surveillance simple bi nag ñaari dërëm ak genn wàll yi nga xamante ne nii mooy chef d'équipe bi ñaari dërëm lañ ko doon pointé par jour ku yor pik ak peel dërëm lañ ko doon pointé ak ñetti fifteen loolu itam léeg nga dégg ci murid yi ci seenu baax ak seenu xër ak ñakk xam li wax ñu naan dañ daan liggéey bañ fay leen ñu rocc ko waat siyaare ko Sëñ mu joxaat ko tubaab bi mu leen koy fayaat ma ni leen loolu ay wor la ñaq gor demu demu demu ut noona Fall Madior day moom wax ne man day bokk naa ci ñi gënoon a jege nga xam ne bu loolu doon am danaa ko yëg wala ma bokk ci ña koy def waaye luñ ma ci mos a jox samay soxla laa ko faje loolu dafay xamal rek ni loolu du lu wér du tege fenn. sëñ Amadou doguma la mais dama am benn aspect boo bëgg ñu taxaw ci ci loolu ñu doon teg Cheikh Moustapha condition yu. Euh, crise u 1929 et fii ñu toll le président de la république barki de moo la jógee euh, Touba waaye amul interprète amul dara dama ni da ngay wax ak moom Cheikh Moustapha nag jamono jooju ay sas yu ñu dajee ay millions amul dinañu ci ñëw ci kanam ndax bu ñu ñëwee ci jumaa ji lépp ci ay ëllëer la ko tegoon muy mbay kon njàmbaarug Cheikh Moustapha li ñuy wax ab raay jëfi état nga jëf ko ci jamono joo xamante ni crise mondiale boobu amoon en 1929 am na te loolu yëpp faale woo ko ba ndigal li ñu la wax nga xamante ni li koy war a def ci xaalis lu état waroon na def ñu euh, sant la ne ko yaa ngi koy def ndax yaa ngi wax nii li ma jaaxal mooy euh, février mille 1931 euh, la liggéey bi egg. te décret bi génnee xaalis bii nga xamante ni président France moo ko def ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier 1931 nga xam ni kon ñoom bi ñuy jël décret bi pour dégager les fond ak firaay bi egg mënul sax weer loolu sëñ bi les intellectuels murit man daal loolu leerul ci sama bopp war nañu koo gëstu waaye nag socle fii sëñ Modou Moustapha sukkandiku da nga koo tudd léegi te mooy jom ndax way juróom bi ko sallallahu alayhi wa sallam feeñoo fii ci da jàkkee daaru xuddos yii ànd ak ahlu badr bokkoon na ca waxante ba bañ ko waxee nattu bi def ni xaw euh, maanaam euh, ruugi day binduma ko ba xam lu muy attan lu mu àttanul waaye lu ruugi àttan rek sama jom dékku na ko dox jooj jom joojee nag moom la Cheikh Moustapha donne ci moom moom la euh, sukkandiku di ko doxe ba jëf ji mu li mu jëf gannaaw sëriñ bi jërëjëf sëñ Bay loolu lépp dafay wane rek jom ji ñu nàmpee ci sëñ Tuubaa day wax ni sëñ dafa mës bëgg lool nit ko am jom ndax jom ji ci moom moo ko koy ñuluk waxtu ci nekk di ko puus jëme ko ci ay bëgg-bëggam te lépp di bëgg-bëgg suñu borom da ci nettali rek genn góor goo xamante ni dafa doon dóora a jébbalu si njaareem tasanteeg période gàmm boobu tubaab yi dañuy tere gàmmu mu jógee këram di ñëw di gàmm si ci biir kër gu mag gi ndax booba sëñ bi ci biir kër gi lay gàmmoo booba ñemewuñoo génne gàmm ci mbedd mi di ko fi defe ci biir kër gi la koy defe tubaab yi itam dañ leen di ramaas ñu ci jëm si kóor gi xamu fu mu jaar tubaab yi ramaas ko yóbbu ko muy defi lijjanti ba daw mu dawee léegi mu ñëw dugg ci biir kër sëñ ba ne ca gàmm ga ba mu xëyee nag di ko nettali sëñ bi naa ko tubaab yi day dem ba may ñëw jàppoon waaye damaa lijjanti ba daw rek bi mu tuddee baatu daw bi sëñ bi dañuy war ngis wan ko gannaaw nga xam ni bokkatut ci wax ji moom sëñ bi wan ko gannaaw sëñ bi daal koy wax ni ko baat boobu bii day xaw ma fu ngeen ko jële waaye du ci sama kër gi ñoo ñooñu day def naa ay at ci seen loxo waaye baat boobu di musuma koo def daal ni ko demal ñu jàpp la demal demal ñu jàpp la dellul dellul. ndeysaan nga gis jom ji ji ji ne ci moom. nga xam ni kooku dafa delluwaat ci tubaab bi di leen wax ne leen léegi jàpp leen ma ñoom itam loolu itam baaxuñ koo dégg ci nit kay jàpp leen ma ñu laaj ko lu xew mu wax ne démb ci jàppoon daa daw ñu ne ko léegi li ngay wax ko la ko digal mu ni sama sëriñ ñu ne koy sa sëriñ mu ni Ahmadou Bamba ci at moom lañ joxul sëñ bi autorisation yi muy woote gàmm nga xam ne ca gàmmuk déwén nga ca fa commandant bi ñëwoon ànd ak soxna sa tem réer fa ndax mbooloo mu bari loolu dañ ciy jàppe rek jom ji nga xamante ne ni moom la sëriñ bi bëgg ak njabootam am ko moo tax lii xew léegi doo xam lu mu doon ak fan loon toppe ndax sëriñ Moussa bi muy engagé liggéey bi état bu koy financé amut wax nga ko léegi benn bailleur wala association bu ciy dugal loxoom amut ab milliardaire it boobu amut ci yoon wi ay baykat dong nga fi woon te booba it fas ak machine xewut tracteur xewut ngoos-ngoos akub ëllëer képp moo fi doon xew nga wax itam ni jamono ji mu tollool muy jamonoy ràgg ak ràmm ak rafle waaye loolu yi dal mag ñi taxut benn yoon mu wàññi dara ci seen pas-pas bi ñu am seen diggante ak sëñ Tuubaa wàññi itam ci yitte ji nga xamante ni moom la sëñ bi am ñu ne yoon ndax mënoon na ni leen am dañ koy fajoo wala leen am kat dañ koy lekk wala leen am dañ koy wute ay yére waaye yooyu yëpp dara newu ci woon seen xel seen objectif rek moo doon dëgmal naalu sëñ Tuubaa yi nga xamante ne ni moom la bëgg yëkkati ci gémmiñam ba ñëpp dégg ko mu wan leen gannaaw taawam bi taxaw ci réaliser ko nan la ñuy def ba semboo yi mën a taxaw jom jooj yi damay wax ni bu fekkoon rupture amut ci yoon wi nëga weesu nañ fole ndax la doon réaliser loola tey téeméeram wala ay junneem mi ngi fi te taxagul ba léegi fi mu doon nii ñu mën a réaliser loo xamante ni nii mënees na koo wane ci gis-gis boo xamante ne dana am rentabilité bu toll nii raay bi sëñ Moussa réaliser ak jumaa ji nga xamante ne ni moom la réaliser ak Touba gi nga xamante ne ni moom la fexe ba wutal ko titre foncier boo xamante ne nii ku sëñ Touba jur amoo ci baat loolu itam mat naa bàyyi xel bu baax a baax nga xam ni dimension bii Touba toll. ci wàllu màggaay ak fi Touba toll ci ni ko àdduna di xoole ak baat bi nga xamante ne nii moom la Touba am nga xam ni ku fi man di nekk yor réew mi it bala ngaa jël position da nga ko sóoraale danga ko càmbar ak yoon natt ko la koy may baat boobee njàmbaaru Sëñ Muusa ak farloom moo tax Touba natt tëbliwuñ ni Sëñ Touba ko moom ci baatin waaye saayir si nag la tax administration nangu ko ci tëralinu àdduna ni muy doxe loola njàmbaaruk suñu Moussa akum xelama loolu tam mat naa bàyyi xel bu baax a baax ci nan la ñuy def ba delloo siwaat tracé boobu yi nga xamante ne ni moom la xàlloon jaar ci ba jot a réaliser loolu yi nga xamante ni ñoom moom la réaliser te fekk itam Serigne Touba waxoon leen ni leen nii lépp lu ngeen di dugg na ngeen ca dugg ak seen doole yi bopp ba keroog suñu borom di leen ca dikk ak ndimbalam ne leen rek waaye na ngeen moytu ndimbalul koo xam ne soo leen dimbalee seen ngor dana ci des wala seen diine xoolal fi mu ni nii li yàqu ci ngor li yàqu ci diine te dara warlu ko lu du ay dég yoo xamante ne ni du agsi ak yu ñuy tàllal yoo xamante ne ni tegewul ci suñu loxo ak yeneen yoo xamante ni ñoo ngi ñu ko jox te bi ñu ko joxee parit amulunu njariñ loola gisoon nañ ni mag ñi nekkuñu woon foofu looloo tax bi nga xamante ne ni liggéeyu raay bi démarré na sëñ Moussa effort mi yëpp mu def ko ci même personnel boobu tubaab bi dañu waxoon ni ceeb bi ñuy lekk dañ ko estimer 300 grammes yi ceeb par par par kenn loolu boo ko seetee ci 1500 personnes ñeenti bërigo la ak genn wàll loolu itam da nga ci gis yéene yu rëy ji nga xamante ne ni moom la am ci taalibe yi Sëñ Tuubaa ak yërmaande ji nga xamante ne ni moom la leen ëmbal nga gis te itam ci njàmbaar gi nga xamante ne ni feeñ na ci mag ñi nga xamante ne nii ñoo àndoon ak sëriñ bi te am yéene ju toll ni gisuñu sa am ci ànd ak moom réaliser sembu mag yi nga xamante ne nii mooy liggéeyu saxaar gi ndax junni ak juróomi téeméer yooyee amoon ko yombut ndax ñëpp bokkuñu woon wenn gisin ci ni lii mën naa ne mooy tax jafe-jafe amoon moo tax amoon na ñenn ñoo xamante ne nii doon nañ sànni sëñ Moussa ay ay kàddu mooy tubaab bi dana ko jàpp bëccëgum dara kàmm ndax nit ñaa ngi amuñu luñ lekk yoruñu luñ sol amuñu dara luñ faji soxla àll bépp mu gas ko naan damay defar yoonu saxaar tubaab bi dana ko jàpp bëccëgum dara kàmm nu ñooña dimbali wuñ ko woon ca liggéey ba boole ko itam téyewuñ woon seenu làmmiñ ñoo ngi influencé ñeneen ñoo xamante ne nii jàpp nañ ñu kon boo ko tubaab bi jàpp dana leen jàppale te booba yi nag ay la yéwén mag ñi ñemewuñ tubaab bi moom daan nañ ko sóoraale bu baax a baax a baax a baax ndax benn tubaab képp bu daan jox ci dëkk daanaka dana yëngal dëkk ba yëngalin woo xamante ni ni daana ca bari mag ñoo xamante ni ni dañuy wuti fuñ làqatu làq njaboot ña ca des nga xam ne ñoo ci gën a ñàkk jom moom dañuy takk seen i bagage génn dëkk ba bu amee sànce yu toll nii mu engagé ko di gëm ak tubaab bi wax dëgg yàlla dana ci am ñoo xamante seen xel mënta rafet njort ci ni lii moom jàmm rek ci mujj ba taxoon na ñu téye seen i loxo téye seen man-man ba pare toog di seetaan moo tax keroog tomboro bu ndaw bi nga xamante ni mooy sotti xeer yu weex yi dëgëral yoonu saxaar gi bi mu kalaksone Touba fekk si mu Moussa di tibaate reer ni mu laaj loolu yëngu bi lu mu doon ñu ni ko tomboro bu ndaw bi dëgëral yoonu saxaar gi la dañuy ndaxte yàlla de su ma jàpp ba di ma suul looy pax loola kon lañ doon wax ma nga doon agsi ci moom waaye mu doon jàmbaar joo xamante ne nii fit wi ak yéene ji ak pas-pas ba ak taxawaay bi fondation bu dëgër bi loo ko yan dana dana dem ndax xam gi mu xam sëñ Tuubaa taxoon na mu xam ni lépp lu mu ñaan boromam loolu suñ borom may nag ko waaye la koy réaliser nag mooy jom rek moo koy réaliser loolu eh, jërëjëf sëñ Ahmadou xam naa ñu njëkkante ak eh, waxtu yi eh, ñëw ci ñetteelu tomb bi te mooy jumaa ji Cheikh Moustapha dafa sof sëriñ Touba moo sos waaye man ngaa sof te sof ba du dëgër waaye Cheikh Moustapha buumu Serigne Touba gi nga xamante ni Serigne Touba ko sos la mu ca sof daf ko sof ñu suudee ko ca noo xamante ni bii ba ba àddinay tukki du dagg mu def fondation boo xamante ni loo ko teg attan na ko ndax damay wax ni Cheikh Mahamadul Moustapha bu échoué woon yoonu murit wépp échoué ndax tabax fondation daf caa am solo te moom fondation bi nga xamante ni bii def na ko yoonu murit bi gannaaw waajuram waajal ko ku ko wutooti rek da ngay ñëw sof ca loola kon ñu ñëw ci jumaa ji e, wax nga ni mu def ci ngasum raay bi waaye jumaa ji itam amul woon recommandation pour dem bitim réew amul woon ay financement yuñ ko jàppale booba ni ñu ko waxee yoon wi borom yi alal yu bari amu ci stratégie ba mu jëloon mooy xam na ni ñàkk jariñu ba mu jël lépp def ko ci tool yi àllarba yi te loolu la ko jural mooy en 1938 euh, le gouvernement français sélectionné woon nañu deux cent cinquante euh, agriculteurs yoo ay béykat ñaar téeméeri béykat ak juróom fukk yoo xamante ni ci li France yilifoon Algérie Tunisie Maroc euh, Guyane Martinique fenn fu ca nekk sélectionné nañ fa ñaari sénégalais ci nekkoon ñaari nit ñu ñuul euh, boo demee ci liste ba deux cent cinquante numéro cent vingt neuf Ibrahima Fati di borom Daarul Mooti ak numéro cent soixante Mouhamadou Moustapha cultivateur à Tindodi loolu mu ngi génn ci décret boo xamante ni bii le président de la république française jël na ko pour ñu décorer leen ci ordre national du mérite agricole ñoom ñaar ñoo ko am ci nit ñu ñuul ñoom ñaar ñoo ko am ci ay wolof te booba mbéyum Cheikh Moustapha du lu mu doon béy di ko jariñoo waaye lu mu doon béy la ñu di ko jaay di ko def ci liggéeyu eh, jumaa ji en 1929 gis naa document boo xamante ni tubaab yi joxoon nañ sëñ Mouhamadou Moustapha suuf su yaatu Ndakaaru suuf sa lan lañ ci jublu woon la grande mosquée mouride de Dakar muy lii am tey Masalikul Jinaan en 1929 tubaab yi jox nañ sëñ Modou Moustapha suuf su yaatu ni léegi dañoo bëgg mu def fi jumaa joo xamante ni euh, estimé nañ ko ci dix millions te booba jumaay Tuubaa ji cinq millions lañ ko estimé ñu ni nag fonds yooyu xaalis bi fi Cheikh Ahmadou Bamba bàyyi danañ ko ci mën a réaliser te bu jumaa ji paree dañu fi indi sëriñ bi dañ koy jëlee Touba indi ko ci jumaay jooju nga xamante ni bii euh, Dakar la nekk kon li ma waxoon ni liñ doon wax ni sëriñ bi provisoirement lañ ko yóbbu Touba après dañ koy indi Diourbel waaye en 1929 suuf soosu xaw ma fu mu mujj ndax am na ku jige sëñ Xaadim bi mu doonee xalifab Cheikh Ahmadul Moustapha nee nañ ma am na ku jóge Dakar ñëw fi ndax kër ga mu dëkk daf ko doon jaay. titre foncier ba mais ba mu demee domaine ñu xool ko ni ko yow lii moomoo ko Cheikh Amadou Moustapha ko moom kon joxoon nañ ko fa suuf soo xamante ni bii suuf su yaatu ay hectares yu bari la ngir ñu def fa juma suuf soo sa nag xaw ma euh, fu mu mujj kon dama bëggoon rek ñu daal di ñëw ci tabax gi nga xamante ni bii ñu tënk ko mu bañ a gudd mooy jumaay Touba ban taxawaay la ci Cheikh Mamadou Moustapha taxaw sëñ Ahmadou Ndiaye. jërëjëf euh, sëñ Mbaye li nga wax léegi day lu am solo mooy sëñ Mouhamadul Moustapha li mu doon ci sëriñ bi continuté la ab liggéey la boo xamante ne ni sëriñ bi moo ko waroon a defal boppam te diirub li muy desaat ci biir jamono du fi xaj loolu la sëñ Moussa doon àggale moo tax seenub liggéey doo gis séparation ci diggante bi doo gis ni lii lu ñu sos la gannaaw bi waaye lu ñu sof la ci li sëñ bi doon def benn doomu da baaxoo wut yóbbu boppam fa mu bëgg a génne àdduna nga xam ni ci boppam loolu doomu adama da ko baaxoo baaxoowut waaye sëñ bi moom fii mu tëdd bu doon lu nit di defal boppam moo koy defal boppam te yoonu kenn du ca nekk loola taxoon na mu dénk ko ki mag ci ak njabootam ab dëkk itam ku ko am yaa koy wutal ay kayit loolu itam bokkoon na ci yéene sëriñ bi ak i mébétam loolu la ko sëñ saa defal moo tax defu ci turam defu ci turu njabootam turu sëñ Tuubaa la ci def te mooy symbole bi nga xam ne ñun ñëpp noo ko bokk dëkk ko am yaa fa war a def jullikaay loolu itam bokkoon na ci ay naalam bokk yi itam yoo xamante ni yëngu na ca jox ko njaboot dëkk itam ko am yaa ko war a wutal yoon woo xamante ni dana tax dem baak dikk ba mën a mën a jàppandi yooyu yëpp damay wax ni Cheikh Mouhamadou Moussa bi muy dem bayiwul ci yoon wi luñ ci war a sos déedéet gannaawam lu bees judduwaat fi mbooleem yi nga xamante ne ni moom la ci yoon wi doxe yépp ci ak nekkam lañ ko defe laneen loo ci gis ñu sosaat ko ci gannaaw bi mën nañ koo dindi te yoon wi du ko yëg du yëg sax ni loolu amoon na loolu itam mat na bàyyi xel bu baax a baax moo tax ginnaaw boo xamante ne nii liggéeyu yoonu saxaar gi noppi na te jumaa ji rek taxoon mu di ko def ca koriga ca ñaari fan yi koriga ci 1350 di 1932 ca la ca la woote bind ay leetar yónnee ko ci seex si njaboot gi mu seqal sëriñ bi ñu daje fii daarul xuddoos ba mbooloo ma dajee mu wax leen ni leen ni jataay bi maa ko woote lenn rek a taxoon tam ma woote ko muy naalu sëñ Tuubaa wii ci la bëgg a jublu te bëgguma ku ni yëguma dëgmal naa ko te deetuma ko woon gannaaw lépp lu ma am danaa ko ci def lu ma waay jox danaa la ko ci defal ca la joxe sëñ ndigal Cheikh Mouhamad al Fadel ak bàyyi taxam ba sëñ sàmba ngir ñu delluwaat ca carrière ba ndax ca ndigal lu jëkk la nga xamante ne ni ci nekkuk sëriñ bi la tem borom darul moxti yoroon baat ba booba ma Masamba ak Cheikh Mouhamad al Fadal ñoom lañ yabaloon ca carrière ba. foofu tam am na précision boo fi bëggoon a def maa ngi ak enregistrement sëriñ Falilou Mbacké euh, en 1925 bi sëriñ bi joxe borom daaru moxti ndigal. Serigne Fallou Mbacké mi ngi wax ni borom Darou Mouhty ñaar fukki fan ak juróom ci weeru Shaaban la bàyyi ko Darou Mouhty ba mu ñëwee di ma fallu yow mi sawar kay dem ndokk seeti doj ya nee na ma dem ndindi jël fa ñaar fukki dong ak juróom-ñett ak ay ngaske ñëw ànd ak Serigne Massamba Serigne Fallou nee na ba ma demee maa for xeeru carrière wu njëkk wa ni maa for xeer wu njëkk wa maa teg xeer wu mujj wa dama dégg na ñuy wax naan sëñ Fallou nee na maa teg xeer wu njëkk wa maa teg xeer wu mujj wa waaye sëriñ Fallou waxul loolu maa nge ay doom yoo xamante ni bii bi mu fekkee ku tedd ki Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba euh, en 1968 ca guddi ga am na émission boo xam ne Ahmed Bachir euh, Kounta Clédor Diagne ak El Hadj Mortala Diop ñoo ko doon def ci rajo Sénégal en enregistrement Serigne Fallou boobu ci lay wax ni maa for. carrière ba la ca jublu maa for xeer wu njëkk wa maa teg xeer wu mujj wa sëñ Ahmadu jërëjëf sëñ Bay yooyu itam lu mat a leeral la ngir bopp gone yi mën a set mën a ko itam ci jamono di taxañ di ko sànni ci seen kaw te mënuñu caa teqental ndax fekkewuñ démb te li leen tey di wax dara du ci dëgg ndax ñu bari daanaka damay wax ni li yàq histoire yoon wi mooy farfarloo te farfarloo daa amul njariñ daana itam loo xamante ne nii beneen jaamu yàllaa ko def nga jël ko moomale ko keneen yokkut ci darajey kan koy moomale dara kan ko wàññee ci moom itam wàññiwu ko dara ndax lam ca waroon a am am na ko ca ba pare muy payuk suñ borom mi nga xamante ne nii moom mooy fay jëf loola rek la ci soxla woon te am na ko ndax euh, li nga wax bari ay débat yu mu ubbi bari na sax ay noono yu ci juddu yoo xamante ni benn amu ci njariñ ndax wax version nit ñëw weddi ko tegal la fa leneen nga dindi ko mun la yow da bañ kilifa gi wala nangam ak nangam te yooyu yëpp dara du ci dëgg pexey saytaane rek la gis naa document boo xam sëñ Mat Lamine jóob Dagana moo ko bind ajjuma lañ teg xeeru jumaa ji dimanche la noppi ca lam doon bind loola mbind mu leer naññ la mbindum loxo ngi fi Cheikh Mouhamadul Moustapha moo teg xeeru jumaa ji loolu kay kenn werantewu ko moom euh, archive yaa ngi fekk photo yi ak li ngay wax rek diiwaankat yi kay diiwaankat yi ñoonu lor ñoonu fental ay xibaar yoo xamante ne ak nit ñi nga xamante ne dañuy dund ngir intérêt rek ñu demee ci kër la neex waa kër ga rek lañ leen di wax xisa bu ne dañ ko tëgg moomale ko kër ga buñ génnaatee foofa tëggaat ko joxaat ko ñeneen rek yooyu mooy li nga xamante ne ni moonu andil jafe-jafe yi nga xamante ni nii ñoo nga indi te it murit itam yëwooguñ dëgg dëgg ci histoire parce que am na ci histoire yuñ dégg yoo xamante nii ni du dëgg saxut waaye fi mu toll nii boo boo ko dajjee au lieu que ñoom ñuy jël seenum xel jëm ci à travailler ba xam li nga wax yan source nga am ak fan nga ko jëlee léegi dañ lay daal di rek adressé daa bañ waa Kër Sëñ Diw wala da contre. loolu doguma dafa am benn euh, document bu ñu def ci réseaux sociaux yi. tudde ko xamle Serigne Touba. ca biir ña ngay wax ni Serigne Touba 1916 la tàmbali jumaa yi e, njaareem 1918 la ko inauguré kon jumaa yi njaareem ci ñaari at lañ ko tabax ñu ni 1927 ci la Serigne Touba rëdd jumaay Touba <laughs> te defe naa ni sëñ bi ni nga ko waxee ca tàmbali ba de 1895. ba 1927 ñëw fi Touba. kon nooy xamlee Serigne Touba ba noppi di wax ni 1927 ci la Serigne bi rëdd jumaay Touba loolu euh, lu du doy waar la jumaay Njaareem ji nga xamante ni bii euh, le 9 avril 1918 la ñu ko tàmbali euh, mu ngi ñu ngi ko inauguré li tax inauguré ci julli Korité 1924 nga bëgg ñu tabax ko ci ñaari fan ci ñaari at loolu. maanaam euh, mbooru murit euh, euh, taarixu muridisme farfarloo geeg wax pour ñu jox la xaalis ak ay liñ ci liñ ci dugal te bokk ci dafa bari sëñ Ahmadou loolu moo ñu yóbbee ci yoon bii ñu nekkee mooy morit gi moom mën nañoo fent waaye doo gis kuy dindi bari na yu xew yoo xamante ni kilifa yi xam nañ ca lu leer nañ waaye yawa yawa ji tax na mënatuñ ko démentir te nit ñi moom taalibe yi moom loolu sëñ Saaliwu daan wax rek ni taalibe buy moolal sëriñam moom yàgg na ci yoon wi waaye mool yi nag daa war a am fu mu yem mooy tax mu mën a boo ko solalee mbubb mu mën a rafet waaye bari na daal loo xamante ne ni salfaañe histoire yóbbe nañu ko taarix taarixu yoonu murit fi mu doon nii jafe na trop fi mu doon nii ñu bind ko lu dul nii jàpp naa ni ay jataay lay laaj yu bare bari yoo xam ne dañuy bokk di toog di nas déggante waaye su loolu amul rek fi mu doon ab weddante mooy am waaye lu ndaw ñi mën a jariñoo moom deetu ci juddoo ndax li ngay wax rek fi mu doon ab tableau ngi ci jumaa ji boo xamante ni loolu lañ loolu lañ bind mooy sëñ Tuubaa moo fondement jumaa ji am 1927 te li wér te woor mooy sëñ Tuubaa 95 ba cent 1927 du menn mag mu ni la gis naa ko Tuubaa ñëw fi. loolu doguma la xam nga sëriñ bi ànd na ak Cheikh Mamadou Moustapha en 1921 wuy ji benn convocation ci la ko joxe ndigal ngir mu jënd këru euh, dépensier euh, gi euh, sëriñ bi ñaari rakk yi mu julli woon ca bureau gouverneur ca Saint-Louis julli na ko ci palais bi nga xamante ne ci la président de la république dëkk waaye ni nga ko waxee maanaam histoire histoire mouridisme daal sëñ bi. doy na war far farloo rek. maanaam fent yi ci am daal euh, doy na war. doo na waar li ñu ci dimbali nag mooy nu xam ni kenn rek lan am muy sëñ Tuubaa kenn képp lan am muy sëñ Tuubaa ñeneen ñi ci des ñëpp koo ci mën a rëyal ak comme ci mën a doon ak dara joo ko mën a jox sëñ Tuubaa rek a tax. waaw loolu tamit li ma li ma doon wax dafa maa dafa maa réeroon tukki boobu. ba ci sëriñ bi jógee c'était au mois d'octobre 1921 le 29 octobre 1921 borom Daarul Mooti maam Cheikh Anta euh, sëñ Balla Thioro ak sëñ ma Massamba bind nañu gouverneur Merlin di ko fàttali ni ko bi sëriñ bi ñëwee euh, woo bi nga ko woowoon waxoon nañu ak yow doon la sàkku nga may ko ñetti weer wala ñaari weer ngir mu bàyyi koo njaareem ñëw Touba. ne newoon nga nu nanu tànn kenn ci nun ngir mu saytu ko nu tànnoon euh, maam Cheikh Anta kon noo ngi lay fàttali loole ba mu tontu leen di leen booleeg un fonctionnaire bu ñu doon wax tellier ni leen euh, euh, maanaam ngir ñu saytu ko sonn nañ ca lool ñoom ñëpp ñu signé waaye loolee tubaab yi dañ koo gàntal juróom-benni at gannaaw ba 1927 la sëriñ bi. dellu si Touba kon Serigne Touba moo nat moo moo moo rëdd Touba moom loolu waxuut moom ndax nit ki balay mën a euh, rëdd jumaay njaareem Serigne bee ko rëdd ci tànku boppam moom moom moo ko rëdd waaye jumaay Touba moom sëñ bi ba mu génnee Touba bi ko Cheikh Moustapha indee la fi dellu si kon mënu fee ñëw ba dafi rëdd jumaa déedéet mënu fee ñëw rëdd jumaa bàyyiwu fi itam autorisation bu tabax jumaa déedéet dañ ko suspendre yooyu mi ngi ci ay text yu wóor yoo xam ne mi ngi teg. document yi kay ngeeg man. archive yaa ngi fii boo demee ci baytig yi archive yaa ngi fa di tege waaye li ma waxoon sànq rek mooy far farloo te xamuñu li ñuy far lu mu doon noonu benn partenaire lañu war a am muy Sëñ Tuubaa képp ndax dañuy wax ni kenn la koo xamante ni amul kenn ku ko wecc ci yoon wi yoonu murit wépp boo leen dajale woon bañ doon benn dànk nga teg leen ci balance jël sëñ tubaa teg ci balance sëñ tubaa wat leen yoonu murit wépp mun ñoo wecc sañ bi dañ ko dul sëñ bi moom sañ bi rek la dañu dul xalaat tegu ci balance sëñ bi rek képp la du doom du rak du kenn ku ci mën a wecc sëñ bi ndax kenn ku ci nekk ci ñoom la mu doon sëñ tubaa tax mu doon ko te sëñ tubaa moom li mu doon kenn ci ñoom taxul mu doon ko kon sëriñ bi moom sëriñ bi rek la du ko nen waaye toujours sunuy farfarloo léegi nga dégg ñu naan sëñ diw ak sëñ tuwaa sëñ diw ak sëñ tuwaa léeg-léeg sax nga dégg ci ko xaabaabal banaan sëñ baa ngi ci sama biir man leen sëñ bi xajul ci biir kenn ci ñoom ñoom ñoo xaj ci biiram waaye kenn koo xamee sëñ bi xaj da ci sa biir amul ñoom ñëpp ci biir sëriñ bi lañ ne eh, sëñ doguma la loolu dafay ma ku am ku am waajur ku ne bàyyi nga koy wooyee doomi sëriñ tubaa yi ñoo nu gën a gëm sëriñ tubaa amul ci kenn ku ci jëfandikoo baatu bàyyi amul kenn ku ko ci jëf sëñ Abdoulaye saa bu ko masaa tudd tudd génne ay rangooñ ñoom ñëpp a jeexoon ci fa ñu ko tegoon ñun ñun ñun taalibe yi mënuñu ko faa teg kon euh, li nga wax rek lu fi waay yor lu nekk sëriñ Touba ko fa def man ngaa dem nag lekk ci ba fëgg sëb dënn naan man a waaye la sëñ Abdoulaye waxoon ni man mii sax bu ma bàyyi woon yoon wi dootu am ku ma yoral ak satala loolu mooy li nekk. waaw yooyu yëpp mooy jamonoo ko war a bàyyi xel. te ñiy wax ak nit ñi itam di leen gën a leeralal fi sëñ bi ne ndax li ñu gën a woyofal ci yoon wi mooy li ci ëpp solo léeg-léeg ngay wax ñu la yow ab taalibe dong nga ci yoon wi benn sëriñ la am ñi ci des ñëpp ay taalibe damay ndax yoon woo xamante ne ni borom Daarul Muxti ab taalibe la ci kuñ ni ab taalibe nga saxoor war naa seet waaye fi mu doon ni aw xas lañ koy def naan diw ab taalibe la ci yoon wi amu ci baat ñooñu rek ka ci am baat mooy ab benn sëriñ a fi nekk muy Cheikhul Khadim ñi ci ah, des ñëpp ay jawriñ sama doomu xol yi ak sama doomu deret yi waaw yi di ñoom lañ daan wooyee doomu xol seen njabootu bopp ñu daan leen di wooyee doomu deret doom yi ñoom ñëpp soo déggee seeni wax mooy sëriñ sëriñ lañ ko def njureel gi jaay nañ ko kenn kuñ ci mos a wooye ni yoway sëriñ bi nga nangu ko it amul dañ koy daal di démentir ca saasa xamal ni leen ni loolu nekkul Cheikh Mouhamadul Mortada ci tuwaayasam yi mu daan def rek am na ci dayra bu ko doon siyaaral am ko ca doon jottalil ni ko yow mi nga xamee ni yow sëñ Tuubaa waaye daa laaj ci mboolem ni lu mu wax ñu ko nee na yoway sëñ Tuubaa dañu ko nee na ca saasa rek moom da ko daal di weddi naka noonu itam yeneen doom yi ci des yëpp soxna may mii fi mujj yi ci njabootuk sëñ bi jigéen daana wax ni sëñ Moussa daana leen jox ñu lekk mu jox leen mbubbam ñu fomp ci ba pare mu tàllal leen loxoom ne ñaanal leen ma ma doon seen taalibe Baay loola kenn Sëñ Tuubaa gi jox ko li mu doon mënu koo weesu looloo tax nag Sëñ Muusaa bi mu songee jumaa ji mu xam ne Sëñ Tuubaa lay liggéeyal waaye ñàkk wuute gis-gis ci ñi nga xamante ni ñoom la jamonoon teel ñu ni lii nga xam ne moom la rëdd ni da koo bëgg a tabax buñ ko doon dóor dóor ci am ngeer ngeer mu ko dóor dóor jàpp nañu amut ci réew mi daa xamul tabax mun leen wax nañ dëgg xawma tabax waaye xam naa sëñ Bàmba mi may liggéeyal loolu itam mooy xam gi mu xam sëñ Tuubaa tax na bu rëddee damay wax ni ki rëdd jumaay Tuubaa ji am 1932 bu fekkoon jamono jii fekk na ko bu ko rëddee murid yëpp danañ ci xaj ndax bi mu koy rëdd benn béréb almet mel naa faagagal dëkk bi benn lu valeur loo fi mën a gis amut beneen bi ci des mooy jafe-jafe yi mu taseel mooy naal wu toll nii mu sëmb ko li ko war a financé ci xaalis foo koy jëlee ci ñaq rek la koy yónni gis naa registre ci biir bayti boo xamante ne ni dañ ci doon collecté addi yi nga xamante ni moom la taalibe yi doon joxe te jumaa ji tax koo jóg la ma cee gis mooy diw ñaari fifteen diw ñetti dërëm diw ña ci ëppale ñetti téeméer ci jamono yooyu registre baa ngi fi am na ñoo xamante ne ni paani gerte lañ doon saso saa yu seen mbay jeexee nga gis ni kon jom la ci mag ñi def ak yitte joo xamante ne nii moo tax liggéey Sëñ Tuubaa ndax damay wax ni naal yi fi Sëñ Tuubaa bàyyi moom daje di jàng xasaay taxul mu sotti wàccee kaamil taxul mu sotti moom dañuy futti ko rek dem ci àll ba moo tax Sëñ Muusaa takk ndiggam laxasaa yu nekk ci kanamu njaboot yi fas yéenee liggéey Sëñ Tuubaa bii nga xamante ni moom la fi sëñ bi bàyyi te ñuy war koo teg ci wërsëg mu seeti barab yu lew yoo xamante ne nii dana tax liggéey boobu yi mën a sotti moo taxoon mu continuer di sañi dëkk sañ ci ay dëkk moo taxoon itam mu dagg ay tool àllarba gis ni liñ ci war a def kenn mënut a def ko kon faw ñu boole suñuy doole ndax toolub àllarba bi fi sëñ Tuubaa nekkee la ko fent waaye booba dugub la ko doon bay ginnaaw sëñ bi lañ ko def gerte ngir taalibe yi kenn ku ci nekk mooy bi liggéey jumaa ji taxawee lañ ko daa def tooli gerte di ko bay buñ ko jaayee andi ko ci liggéeyu jumaa ji sëñ Mandoumbe indi fi seetarna yu mag yoo xamante ne nii ci wër jumaa ji lañ ko teg bu nawet jotee mag ñi topp déeg yi di ko ngacc di sotti ci seetarna yi di conserver ndox mi bu nawet bi jàllee buñ jaayee gerte gi jënd ciment ñëw tabax jumaa ñooñu nag képp kuy wax ni yàlla ñoru leen xamoo yàlla ndax la leen yàlla jaral amul kaneen ku mu ko jaral ndokk lañ daan yanoo ji ay xeer diggante ndokk ak tubaab 8 kilomètres la mu wenn xeer la mën a yanu te booba xëy na mag ñi seenug col demewut noona seenug lekk demewut noona am na ñoo xam ne sax wax nañu boobu amuñu ay dàll waaye am ngeer la ñuy dagg lal lal ko teg ci seen tànk wut law tanuk caxan takk ba mu dëgër di dox muy rocc ko ba jeex ñu takkaat yeneen ñu tooy def ca te taxul ñu dellu gannaaw waxoon nañu itam manqué ndox taxoon na bari na ci jigéen ñoo xam ne ci tubaab bu ñu daan soq doom doomu jombas la ñuy dagg def ko ci biir ngir mu mën a kaas dugub ji ba mën a soq waaye téewut ñu ci liggéey jumaa ji teewut itam sëñ Moussa di gas ay teen muy teen bii ci biir kër sëñ Touba yi boobu moo fi nekk ci teen ak ay norida ak xëy na yeneen teen yu ndaw yoo xamante ni mi ngi fi ci yu mag ñi man di rootem ndox di ko indi ci liggéeyu jumaa muy liggéey bu diis bu metti boo xamante ni ni jom lañ ko doon defee ak dëggal ndigalul sëñ Touba waaye booba ay mooy moyen néew fi bu fekkonte ni dañuy xaar jamono ju neex ba nëga nii yaakaar naa fi mu toll nii la ñu door a xalaat nan la ñuy def ba projet bi Sëñ Tuubaa boobu yi mën a taxaw waaye day projet boo xamante ni nii projet bu ko gën a rëy ci yoonu morit daa amut ndax daa desoon ci liggéeyu sëriñ bi mu waroon koo defal boppam te li desoon ci dund mayewu ko te suñ borom làq ci yool bu réeree boo xam ne sëriñ bi ak njabootam rekk la ko yéene moo tax fi mu doon ni benn xalifa ñemewut jaar fi ba jàll te laaloo ci dara doonte benn karalooj da nga ko dajj defaraat ko ngir feeñal ci sa yéene tampe ci say empreinte ndax damay wax ne histoire du fekk kenn di la bind yaay fekk histoire bind ci sa bopp waaye histoire du fekk kenn di ci bind loolu Sëñ Tuubaa daf koo gëmloo woon ak njabootam ba ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ yoo xamante ne ni naka jekk seenub yëngutu mi ngi jëm rek ci luy jëmale lislaam kanam seenub yëngutu mi ngi jëm ci lépp loo xamante ni dafay aar lislaam ak luy màggal liggéeyub sëriñ bi liggéeyu jumaa ji daal coono yooyu la ci Cheikh Mouhamadul Moustapha def ndax 1932 la ko tàmbali 1939 4 quarante guerre bi déclaré wu mu arrêté liggéey nga xam ne liggéey bi li ci liggéey daanaka ci at yu néew yooyu la ko liggéey te bi muy dem symbole jumaa ji collectif bu yë pare na raase na diggante barabu sëñ bi ak fi barabu sëñ bi ne wet ga féete penku fondation miire nañ ko ba mu yëkkati kilomètre un mètre moo tax sëñ Moussa Ka di wax ne Cheikh Moustapha fondement jumaa ji ba mu weesu xaaj mu bàyyi ko alhaaji Cheikh Moustapha tabax keno yi jumaa ji yenn fa baayam mu bàyyi ko alaaji keno yi ci barabu Sëñ Tuubaa bi yooyu Cheikh Mouhamadul Fadil moo ko def mu ni tabax na bay tàmbale ay fenêtre ci wet ga féeteeg gànnaar daal di gedd ay xeer loolu itam déggoon naa fi kii naan jomaa ji bi ko suñ Moussa bàyyi aw bay mën na koo yéeg ma ni ko xanaa kon doon bayu bayu bayu xanaa bayu saytaane lay doon waaye fi suñ Moussa bàyyi moom wax dëgg yàlla sëñ Ablaat waxal na boppam ni bu dul woon guerre bi sëñ Moussa dana ko julli door a dem ndax Pastef bi mu doon liggéey ak pas-pas bi te firnde ja ci loolu mooy bi mu wéradee muy wéradi ji nga xamante ni ci la ko sun borom dogale mu wàcc ab liggéey sëñ Cheikh andi na fi docteur boo xam ne doon na ko seetal yaram yi ndax jaaxle guñ jaaxle ci tawat ji waaye dañu ko gisuma feebar yaram mu jeex laa gis ni ko su ma doon wax damay wax ni daa manqué nelaw ba ko sëñ Cheikh nettalee dañu ko ah, ñoom de sun borom may na leen diggante bi sëñ bi demee ak léegi néew ma nelaw ma fi waaye fàttaliku ma fu ma fi tëdd di xaar nelaw ndax liñ ma bataleel ak ñiñ ma bataleel nelaw xaju fi liñ ma bataleel ak ñiñ ma bataleel nelaw xëju fi 18 ans yooyu 18 ans yu fees dellu la yoo xamante ne nii manees na cee def ay jataay yu bëree bëri sëriñ bi te te du jeex waaye dal nit la koo xamante ni warees na koo teg ci taabal ji jàngataat ak dundam ndax mooy yoon wi si Moussa mooy yoon wi faw teg ko ci kaw taabal dundaat jàngalewaat ko ba ñu xam ni mu doon dunde ak fi mu teg yoon wi ndax tamit wax ni yoon wi lislaam képp la lu dul lislaam bokku ci laneen lu dul lislaam loo seen ci biir yoon wi bokkut ci yoon wi yoon wi moom lislaam rek la te moom foofu yi rek la tënkoon ci dem la tax Sëñ Tuubaa ni ko woon watal sa bopp bi te raxas ko ak nite lañ la fa fàggul mooy daa bëggoon muy dox ci sunna moo tax ma sëñ bi daan wax ni man di waxuñu ma loolu waaye loolu lañ ma tànnal te da gis ni kenn gënu koo nite foofu yi la bëggoon ndax ñaar yooyu rek mooy ñaari cëslaay yi nga xamante ne ni mooy mooy tànki yoon wi nga xamante ne ni moom la ñuy doxe moo tax dañ daan wax ni képp ku sëñ Tuubaa jurut yaru ko lu mu la wax xool ko ci téere yi bu ci nekkut lànkal bakkanam rek la cay tawal yooyu moom firnde ju wóor la joo xam ne mag ñi doon nañ ko daay euh, jërëjëf euh, kon xam naa dañu koy yemale fii rek ndax euh, mel na ni jataay baa ngi bëgg a yàgg te bu ci nekk lu tuuti rek lañu ci daal ni nga ko waxee Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bi mu wutoo Cheikh Mahamadou Fadal Mbacké miirub jumaa ji bi mu koy woote bi Cheikh si daje ba muy tàmbali discours am daf leen ni yéen Cheikh si fi daje day ginnaaw moom leen nuyoo ziyaare leen bare woowoon na ci yéen ñu teewe woon fii sëñ Ibra Faati muy borom Daaru Muuti jiite liggéey bi ba ni ko fi sunu borom toxale muy ñibbisi sëriñ bi Touba mu ni Cheikh Moustapha itam coono yu nekk daj na ko ci lu nekk tegoo na ko ci waaye nattable wu ma ne bu dul woon guerre bi muy ni nga ko waxee la deuxième guerre mondiale 39 45 bu julliwul jumaa ji itam dana sori lool. Euh, moom sëñ Modou Moustapha nag li mu def li tubaab bi di wax naan il faut oser loole moom la def ndax fit wi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké amoon bi muy wootee milliard fit woowee moom la Cheikh Moustapha amoon bi muy fondement ak jumaa ji te li nga doon wax dóor dóor mooy lakkum ngeer ñu doon wax ni bu fekkonte ni li mu tracé li mu rëdd dañ koy lakk-lakkum ngeer sax amuñu ngeer mu ko lakk waxuma laa tabax ko loolu dafay nuru lool ak bi Serigne Touba yónnee ci borom Darou Mouhty en 1919 ni ko demal ca Touba boo demee daaru euh, Darou Khoudoss Touba mosquée muy fii jumaa ji nekk euh, Darou Naar ak euh, Darul Minan nga def ko néegi seng ak sakketi seng am ku ñëw ci borom Daaru Muxti ni ko sëñ Touba li mu bëgg munta nekk ndax seng amul ci réew mi ndax guerre baa ngi doog a jeex 14 18 gis naa fi benn chef de canton bu dajji ay seng yu màggat da nga ko waroon na seeti boo demee la nga ca nga jënd ko boo demee Touba la nga ca man nga def ko te sëñ bi def ko ni boo demee Touba na nga jël suuf su màggat si dugal ko ci biir jël suuf su yees si tasaare ko kooka ba mu demee borom Daaru Muxti def ni diw de xaw ma xamul Serigne ndax Serigne lu mu bëgg am ko te lu mu ma wax danaa ko def kon Cheikh Moustapha foofee euh, fa la euh, tënku woon kon euh, nañu bàyyi xel ci garab bu fekkee dafa meññ ak lu man di doon wala ab immeuble boo koy tabax ba mu dem ca sommet ba fàttalikul fondation bi nanu bàyyi xel jëmm ji nga xamante ni moo wuutu woon moo njëkk a wuutu Serigne Touba di Cheikh Mouhamadoul Moustapha jëf yi nga xamante ni bii jëf na ko euh, ginnaaw waajuram tracé fi yoon yoo xamante ni bi moom yoon yi léegi jaar dem rek mooy am kon euh, sëy Ahmadou ci gàttal rek nga ñëwal nu ci fan yu mujj yi Cheikh Moustapha El fii ci Touba ñu doog yëkkati jataay bi. jërëjëf sëriñ bi Cheikh Mouhamadul Moustapha dafay wax ni rek li jamonoy wax léegi muy bon gouvernance ci moom lañ ko waroon a jànge ndax bi mu wuutoo sëriñ bi mboolem ñi mu bokkal yoon wi kenn ku nekk gis nga ci sa bopp ci cër boo ca war a am ak fu wàccuwaay boo war a am ci moom ba tax na njabootu sëriñ Tuuba gi nga xamante ne nii moo woon ci seen kanam jeexital na torop ci seenu dundin loolu ñëpp seere nañ ko mag ñi nga xamante ne ni ñoom la fi sëñ Tuubaa bàyyi woon joxoon nañ koy cër bu baax a baax ndax bari na ci mag ñoo xamante ne ni am na ñuñ ko duppee te moom ci seen kanam la gane àdduna loolu itam jëflanteen wu rafet rek moo ko waral loolu li sëñ Abdou Khadir daan wax rek da wax naan cey cey am di ni fan wi gàtte ak ni jëf ji réye ak ni tur wi siiwe ñett yooyu mat naa bàyyi xel bu baax a baax mu doon nit koo xamante ne nii li ma waxoon sànq rek mooy dañ ko war a teg ci taabal ji jàng ko damay wax ni képp ku wóotu nit ci yoonu sëñ Tuubaa wii waroon nañ laa dugal ci ab roq jàngal la dund sëñ Moussa ba nga mokkal ko nga door a génn wax ak mbooloom lu ko moy rek njuumte yu bare bari dana dana am ndax taxawaay yi nga xamante ne ni moom la taxaw gannaaw sëriñ bi taxawaay yooyu yii day taxawaay yu mënta ñàkk yoo xamante ne ni nit ñi dañ ko war a bàyyi xel ci kenn ku nekk ba sa waajur di génn àdduna lam fa bàyyi ci nga war koo sàmm lam fa bàyyi ci ak njaboot nga war leen a taxawoo lam fa bàyyi ci ay mag wàccuwaay yi ñu war a am ci yow ak déglu gi nga leen war a déglu bàyyi xel gi nga leen bàyyi war bàyyi xel ci continuité bi liggéey yooyu yi yooyu bu ñuy seetlu dafa mel ni fi mu toll nii daa manqué ndax day feeñ ci lu bare bare mooy boo demee ci kër yi mag ñi nga xamante ni ñoo àndoon ak borom kër yi sañcoon kër yi ndaw ñañ fa bàyyi fi mu toll nii teguñu mag ñooñu fenn buñ leen di woo dañu leen di sàllalu loola mooy di la wan rek ni la fii moom doo doo fi dara buñ buñ lay woo dañ dañ lay sàllalu daanaka duñ nangoo yow bokk ak yow lekk buñ naanee seenub kaas teg nga naan ca kaas ba sax ñu dal ci sa kaw jàpp ni waruñoo doon sa morom wala waruñ leen seenub nawle te loolu demewul woon noonu sëñ Moussa bàyyi woon na leen xel a ngi nettali rek benn rob boo xamante ni nii ci armée li Touba yi la amoon sëñ Moussa ñëw na sëñ Mbàkke bu sa jógee Gede ñëw sëñ Daam Abdourahman loo jógee Ndaam ñëw bañ jullee ba pare sëñ Moussa wax Aliou Bey ni ko na yóbbu sëñ daam ak sëñ bu sa moom mu doon xalifab sëñ Tuubaa doxee yi ci armée li wuti këram te sëñ Tuubaa rek a tax mu jox leen ko Aliou Bey ba mu demee ci sëñ Mbàkke bu ni ko sëñ Moussa daa ni naa la yóbbu yóbbu sëñ daam sëñ Mbàkke Buso dañu ko demal yóbbu sëñ daam ndax moo ma jiitu ci sëñ bi Aliou Buso ñëwaat ci sëñ daam Bey ni ko kat sëñ Mbàkke sëñ moo daa waxoon ni naa la yóbbu yóbbu sëñ Mbàkke ma demoon sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke ni naa la yóbbu dañu ko demal yóbbu sëñ Mbàkke ndax moo ma gën a bokk ak sëñ bi nga gis ni sëñ Moussa mi leen jox otoom ak ñoom ñaar ñi koy géngente jëm bi sëñ Tuubaa ji rek la ñuy xool jëmm jooju yi nag moom lañ war a jox beneen wàccuwaay ci sunu biir jàpp ko te dem koo roy waaye damay wax ni sëñ bi moom 27 ba léegi ak mbaaxam la ñuy waxtaane te taxunoo soppiku kon daa mel ni wax ji doon koo dundut buñ ko dundoon nii nu mel da daan danañ weesu foofu mooy jéem a roy sëñ bi te mag ñi foofii rek lañ newoon sëñ Moussa itam foofii la newoon beneen bi ci des mooy yërmaane ji mu ëmbaloon doomi sëñ Tuubaa ndax ñu ci bari moo leen taxaw ndax euh, li tàmbalee ci Sëñ Blaat ba ci Cheikh Mouhamadul Mourtala ak ñu bari ci jigéen ñi bi sëñ bi dem ci at yu ñu leen war a taxawoo ngir ñu mën a am responsabilité yuñ mën a taxawee bu ëllëgee foofa lañ tolloon muy jàngal leen ak yar leen sëñ Moussa taxawee seenu jàng taxawee seenu yar ba bi ñu waree wutu sëñ Touba kenn gisut ci ñoom seenu doxin loo xamante ni da nga naan ñiikat nii ñu mel seen bàyyi da leen a yarut moo tax ñu mel nii. Euh, sëñ Habibou Mbacké imaam yàlla na sunu borom yokk ay leeram mi ngi wax naan sama ñëw Touba Cheikh Moustapha moomu fi indi ngeen ma jàngal si sëñ Abdoul ñoom loolu ma indi Touba. loolu da ngay gis ni kon njaboot gi ko sëñ Tuubaa bàyyee loon yàqu leen boole ko itam bokk ak ñoom li mu am ndax daf daan wax ni njaboot gi dee leen leen teel a xamal ni li ngeen yor ci lañ bokk ndax nee na mbubb bu la wóoree ni da ko sol doo ko tilimal te loolu itam manqué na léeg nga gis nit koo xamante ni njaboot gu sew ga aju ci moom te bokk ak moom wenn waajur benn wàccuwaay amuñu ko ci moom bu dee kër gu mag dañ koy tëj njël du fa tàkk bu ko defee gone yi fenn fu ne ñu toñ toñu fa jëmale fa seen bopp ñi ci seen àll ba àggul woon seenum jàng demeetul noonu ndax amuñu ñu leen taxawu ñi ci war a samp kër mënuñu ko ndax seen jigéen ñi ci waroon a nekk ci néegum sëy kenn orienté wu leen fenn ba tax na xas wi tasaaroo na fépp ci sant wu rëy wi ni ñu mel ni ñu mel ni ñu mel nangam ak nangam te dara warlu ko lu ay taxawaay yu manqué rek loolu sëñ Moussa daf koo seere woon daf daan wax ni njabootuk sëñ Tuubaa luñ jot jël damay bañ luñ jot jur bu ëllëgee mu yor xelum ndey ji ak doolay baay ba te kon lépp yàqu te loolu gis nañ ni fi mu doon nii daanaka kenn contrôlé tut fu neex waay jël sëñ Abdoulaye Diakhaté daf daan wax ni fii ngeen di toog ba ab portugais ñëw fii ni maay xalifa général maa fi mag te on dirait jamais ndax ni yëf yi doxe fi mu doon nii lu ne mën naa am yooyu sëñ Moussa daf ko daan bàyyi xel. Cheikh Moussa daana wax ni ku foraatu sa. sa soxna am poñaxteetum doom poñaxteetum doom te yooyu dafa bokk sax ci yi nga xamante ni ni sëñ bi bi muy dem ci yoonu géej gi dénkoon na ko boroom daarul moxti yi ca Mbàkke yi waxoon na ni ko ñett mooy sama njaboot gi buñ fortaatu xam-xam buñ fortaatu soxna buñ fortaatu ay tool mu ne ko fortaatu xam-xam sëñ Tuubaa ne ko mooy jàng ci ko xamul dara boo baree téere yoo jeexal ñi am xam-xam xam nañ ñu dara mu ni ko fortaatu soxna mu ne ko boo doon wëlli am saarit ngay jur mu ne ko fortaatu ay tool mu ni ko mooy bay ci suuf su sàppi loo doon doon jàmbarit doo bari ay jàkk yooyu njaboot gi dafa jeexital ci ñoom ba feeñ ci seenu dëkkin ak seenu dëkkuwaay ci ñi doon jaxasool ci soxna yi dañ leen di tànn jële leen ci barab yoo xamante ne ni ngor ak diine moo taxoon ñu taamu leen léegi nag bi nga xamante ne nii yooyu amatut indi na lu bare bari la suñ Mor Jaara doon wax foofa rek lañ toll mooy billaahi suñ jamono jii suñ daara ji gis naa ci ab raax billaahi suñ daara ji gis naa ci ab raax boo xam ne suñ jiw wi moo ko nar a raax bu ëllëgee nooy xara jël buuse karaama jeex nga jóg ci suuf si loolu kenn ku ne xam na ni fi mu toll nii jiw boobu bañ ko tànnoon itam fi mu toll nii moom mënatoo delluwaat ci tool yi faaw ñu tànnaat ko génnewaat buuse bi jëlaat kemb nga door a yóbbu ci tool yi mën a amaat qualité bi nga xamante ne ni moom lañu ñu amoon sëñ Moussa noonu la doon dundee mooy ñëpp la fi nekkaloon. yoon wi magi taalibe ak doom yeeg ñoom ñëpp ndax daf daan wax ni bokk yi ma Sëñ Tuubaa booleel ni ma fas yéenee dunde ak ñoom mooy lépp lu ñu am danaa leen ko bàyyee lu ma am danaa ko bokk ak ñoom te ku ma ci tooñ ma jéggal la loolu nag képp ku ko dundee ci biir njaboot guñ la bàyyeel faaw dañ la sopp dañu la joxub cër mm-hmm. eh, jërëjëf eh, sëriñ Ahmadou Ndiaye Nguérane jërëjëf bokk yi àndoon ak jëfandikaayub sëriñ Touba bi di Bichri TV ñu doon waxtaanee dundu Cheikh Mahamadul la ko Serigne Moussa Ka wax rek dogon ko nag Ababacar Sadiq ginnaaw rasulullahi e kon nu yuuxu dogon ko nag xalifa am di Moustapha kon tey nu gën fee jooy xadimal Moustapha kon sang boobu nu ngeen ko déggee ci ay jafe-jafe ci ay xat-xat ci jamono ju naqari ci la wuutu waaye juróom wa ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba jële naa ci sëñ Moustapha Jaxate doonoon xalifab sëñ Mbay Jaxate mu ni waaye juróom sëñ Mbay Jaxate nee na ko am na woote boo xamante ni gouverneur moo ko wootoon kilifa yi ndar bi sëñ Modou Moustapha di waaj a dem sëñ Mbay Jaxate yónnee ci moom ni ko ndax gan gifi romb jëm si ci moom ndax egsi na nee na Cheikh Moustapha ni ko déedéet egg si wul de ba ñu demee ca euh, wuy ji woote ba Ndar ñu jox leen saxaar gu leen di indi saxaar ga jaar euh, Tiwaawoon wàcc fa waa Tiwaawoon ñëw njaareem di jàll si Touba nee nañ bi mu ñëwee ba tolloog Ndula fala saxaar ga taxaw Cheikh Moustapha yónnee ci sëñ Mbay Jaxate ni ndaw la boo demee ne ko na waaj te ñëw ndax gan ngam doon wax egsi na te gan nga ndekete mooy tawat ji koy war a yóbbu sëñ Bay Jaxate waaj ñëw fii Daaru Xuddoos nekk fii ak Cheikh Moustapha ba bis bi nga xamante ni bii sunu borom a ngi jëfandikoo li ko soob ci penku sëriñ Bay Jaxate ci la Cheikh Moustapha

jéggulu sëriñ Mbay Jaxate fa wax ni Cheikh Mamadul Moustapha ba muy fekki way juróom bi ci penku sëriñ Mbay Jaxate la ko defe mu tàmbalee baqara ba naasi nee ni ko boo demee nu sëñ Amadou bisimilah tàkkutu waaw jërëjëf sëriñ bi dañuy rek ci penkam la cheikh Mouhamadul Moustapha wuy jee boromam suñ bay jaxat ne ma tàmbalee ci baqara ba ca naasi tasanteeg rooga di yëg ma tifli ko ca nopp ko boo demee nuyul ma sa baay te santal ma ko loola dafay firndeel rek ni nit la koo xamante ni ni jeexal na ak dundam ci jeexalin woo xamante ni nii fa tabaarakallah ëllëg yomal xiyaam bu dajeek waajur wa doo am kersa ci lam ko dénkoon ndax daana wax ni jumtukaay yi ma sëñ Tuubaa bàyyeel ma doon ci liggéey suñu dajee ëllëg yi ma xëy am lu toll ni bën bënu puso du ci jóg mooy xel mi ak nite gi ak fit wi ak njàmbaar gi loolu rek la doon jëfandikoo waaye bàyyi na xel bu baax a baax lii mag ñi doon wax rek mel ni borom Daarul Muxti daf daan wax ni àdduna ci ay rëdd rekk lay mujj mais dangay fexe boobu la kenn gën a rafet ay rëdd ndax ne dunduk doomu aadama weesuwut fii la ganee àdduna fii la nekkoon fii lañ ko rob dunduk doomu adama weesuwut lool seeb lan nag daan wax ni nit ginnaaw bu ganee àdduna ñëpp xam ne gane na àdduna saa yoo ko génnee ñëpp xam ne génn nga ko loo fi def ci diggante bi nit ñi xam nañ ko loolu fa tabaarakallaa moo tax tey nu mën a toog di waxtaane dundam di ci jële ay bind yoo xamante ni dañ koy wettili ko ba loolu di man di tooyal suñuy xol léeg-léeg suñuy rangoñ di génn waaye loolu lépp rek di sant yàlla di rafet njort bu baax a baax ci walladina amanu wa tabaatum suriyatuhum bi iman alxaqna bihim suriyatihim loola ñu ngi ñaan suñu borom defal na ci lu kawe suñu njort ñu ngi sant waa Bichri TV bu baax a baax ci jumtukaay bi nga xamante ni ñu ngi ciy liggéeyal sëñ ak itam di jéem a tasaare mbirum sëriñ bi di jéem a sensibiliser ndaw ñi di def ci seen bopp loo xamante ne ni dana tax message bu sëñ Tuubaa bi gën a mën a yaatu ndax ci jumtukaay yi rek lañ mën a sukkandiku fi mu doon nii fekk nit ñi ci seen biir nekk fekk leen ci seeni i kawlal def ci seen bopp loo xamante ne nii mën nañoo dugg ci université yu bare bare te duñ ko fa jëlee waaye loolu lépp rek dafay dugg ci li sëñ Tuubaa doon wax rek ujahidu bil ulumi wa bi tuqa abdan qadiman wal muhayminu sahidu sëñ Tuubaa woon ci xam-xam ci lay jihaad ak ragal yàlla waaye ñoo xam ni lii lépp rek sëñ Tuubaa ñaanoon na ko hab lii busaaratin taduumu baadi wal tutwi lii yaa rabbi kulla baadi mooy wax suñu borom nag ma may ay mbég yu baree bari waaye yoo xam ne sama gannaaw lay doon te lépp lu sori woon rek na nga ko jege yii yëpp daa bokk ci yoo xamante ni dañ ko daan waxtaane mu sori lool ñu defe ni doxub jamono du ci agsi buñ toogee tey ba mën a toog ci benn barab di waxtaan àdduna fenn foofu waay nekk di ca mën a jot ba mel ni danoo jàkkaarloo di saafonte loola ñu xam ne rek ci biir ñaanuk Sëñ Tuubaa nangu gi rek doon jumtukaay yoo xam ne dañ koy liggéey la Sëñ Tuubaa ngir tasaaree ko message bi yal na suñu borom boole dimbali te gàttandunu te nangul nu li nu doon ci sëriñ bi muy ay taalibe barakatu Cheikhil Khadim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi kon lii la ñu leen indiloon tey ci dunduk jëmm ju sell jooju di Cheikh Moustapha al Karim mi njëkk a wuutu Serigne Touba moom day mbakke at yu ndax deful ci àddina juróom benn fukki at waaye ab liggéeyam day mat na maa ngi jégalu nag bokki téléspectateur yi seetaan Bichri TV yëpp di gërëm équipe bi nga xamante ni ñoo nekkoon ci technique bi di teg ngërëm li ci loxol El Hadji Cheikh Gueye waaye di gërëm sëriñ Ahmadou Ndiaye mi nga xamante ni tey moom la ñu dalaloon ci Cheikh Moustapha te defe naa ni ku teewlu waxtaan wi danga nga xam ni na ma ko waxee woon ci tàmbali ba ku maîtriser Darou Khoudoss a ngi nii ku maîtriser Cheikh Moustapha El Karim mu ngi nii kon danañu leen jox dox daje incha allah ci ñaareelu xalifa Serigne Touba di Cheikh Mamadou Fadal Mbacké moom mi nga xamante ni. bi magam ji fekkee Serigne Touba ci mois de juin 1945 46 47 48 49 la woote maggal gi Touba 49 la tàmbaliwaat liggéeyu jumaa ji ba ni mu ko jiitee ci le 7 juin 1963 kon ñoo ngi leen di jox dox daje ci dundu ak jëfi Cheikh Mahamad Fadal Mbacké mu doonoon seen mbokkum taalibe liggéey ak nu borom Daarul Muxti mbay Guèye Syll ma di leen sant di leen gërëm jërë ngeen jof